bisimilah barki Cheikhul Khadim ñuy tàmbali di ñaanal ku tedd ki mun taxa Mbacké mu yàgg fi wér noonu lañ koy ñaanalee njabootu borom Touba gépp ak cheikh yi suñu boroom yàggal leen suñu kanam te ñu ànd ak wér ñuy tàmbali di ziarit sunu sëriñ si nga xam ne dañoo nekk fii ñun ci kër gi ñu leen di ziar bu baax ci turu jëwrin Serigne Macoumba Thiam di représentant xalif général kulli murit fii ci Côte d'Ivoire di nuyu suñ bàyyi sëñ Aydara Sey di secretaire général bu Touba Treichville di nuyu Seydina Alioune Thiam mi nga xam ne moom it mooy jëwriñu euh, tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci tullu Treichville yépp muy xidmatul xadim Côte d'Ivoire di nuyu it jëwrinu kër sëñ Touba yépp li ko tàmbalee ci sëriñ Modou Moustapha Mbakke ba ci maam Cheikh Rahma Fall ñoom ñëpp ñëw nañ wuy si wooteeb sëñ mu kumba ngir ñu dalal suñu gan yi nga xam ne ñoom ñoo jóge Touba di délégation boo xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk muy sëriñ Abdou Khadir Bousso ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso di ay ndaw yoo xam ne dañoo jóg ngir liggéey ci turu muxaddimatul xidma bu jumaay Touba ngir toppaat tànki sëriñ bi ci yoon bi nga xam ne am na ko fii ci Afrique ñu tàmbalee woon ko nag ca Touba muy ab film documentaire boo xamante ki ni jaar-jaaru sëriñ bi lañ ciy wone ci pàcc bu njëkk bi ñu tàmbalee ko ci Touba jaar Mbàkke Kajoor jaar Mbàkke Baari dem tund jéewal jaar Louga dem dem Ndar dem Dakar ñaareelu pàcc bi nag mooy yoon wi leen génnee ñu jóge senegaal jóge Dakar dem Gabon dem Togo dem benee ba ñëw fii di Côte d'Ivoire sëriñ Makumba mi fi nekkal sëriñ tubaa dalal leen fii ci Touba Côte ñu teew fii ci Touba muy kër gi nga xam ne moom mooy këru Serigne Touba gi njëkk boo génnee senegal loolu xam naa ne am nañ fi kilifa yoo xam ne buñ ci duggee incha allah dinañ ci gën a indi taarixu kër gi ak ni liggéey bi doxee fii fañ jëlee liggéey bi ba fiñ toll nii ak fi ko taalibe yi am yéene yóbbu kon xam naa ne dañ leen doon xamal rek li nga xamante que nii mooy sababu jotaay bi euh, nuyu la leen ak suñ gan yu tedd yi nga xam ne dara yëkkatul lu leen lu dul dundalaat liggéeyu sëriñ bi ci biti kon ñoom ñoo toog nii ci sama ginnaaw sëñ mu ko dalal leen suñ fa jógee ñu jox leen ñu gën a leeral li nga xamante ni mooy seen tànk su ko defee li nga xam ne bëgg nañ ko xam ci liggéey sëriñ bi suñ ci yëkkatee ay kàddu kilifa yi nga xam ne ànd nañu ñun jotaay bi muy jëw jëwriñu sëriñ Touba yi fi nekk kër sëriñ Touba yi ak ki nga xam ne mooy suñu bàyyi sëñ ay dërëse yi nga xam ne lu bëri ci secrétariat kër gi daanaka ci loxoom lay jaar ba ci école bi nga xam ne moo nekk ci kaw nga xam ne suñ sang bu baax ba yàlla na yàlla yokk ay leeram muy sëñ Murtala moom Xaadimu Rasuul moo ko fi defoon te tey jii mu am ay jéego yu mucc ay yu ci am loolu yëpp insha allah dina ci jaar ak ñun kon mu doon loo xamante ki nii dañuy euh, taataan yooyu leeral te di sàpp ci mbooloo mi ànd ak déglu ndax ñàkkul sax ne koo xam ne nii mu ngi woon fii ci dëkk bi nekk ak ci tund Treichville te lu bëri mu umpale ko ci kër gi kon defe naa ne lii jotaay la yoo xamante que nii ay occasion la ngir lu bëri ñu xamaat ko ndax dina tax ñu gën a wax ci liggéey bi dana tax ñu gën a joxaat kër gi àqam ndax li fi jaar bari na sang yi fi jaar bari na te kër gi macha allah dafa fees dell ak histoire kon dañuy dalal. sëñ Abdou comme ni ko bëggee comme euh, sëñ Koumba mooy kilifay jotaay bi moom dañ koy dox mu dalal gan yi nuyoo leen ak jëw ñi sëñ Tuubaa yi nekk yëpp su ko defee mu soog a jox euh, suñ gan yi ñu yëkkati laaj yi nga xam ne bëgg nañ koo xam su ko defee ñi ci am ay leeral daal di ko ci indi kon ñu ànd déglu sëñ Koumba auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bakki Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ko ziar di ko baalu ak di ko baal ñaan su mborom mborom jéggal ñu gisee ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Mbacké Xaadim Rasuul waa kër Sëriñ Abdou Khadre Mbacké Sëriñ Issa moo fi nekkoon waaye dafa randal dafa dem Sénégal kon ba tey moom tamit moo fi moo fi moo mooy mooy jëwriñ ji waaye nekku fi waaye ba tey kàddu moo fiy dox ah, ci noonu tamit waa kër sëñ Masamba Mbakke alaaji Mbay Njaay mii mooy jëwriñ ji waa kër maam Cheikh Anta sëñ Samba Jóob mooy jëwriñ ji waa kër maam Ceerno Ibra Faati sëñ Cheikh Amar mooy jëwriñ ji ak ñi mu ko àndal ñëpp kon daal sëñ Massamba Diop Sam sëñ Cheikh Guèye mii mooy jëwriñ ji waa kër Cheikh Issa Dieng sëñ Cheikh Amar mooy jëwriñ ji waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall alaaji Mbay Njaay mii mooy nga xam ne moo jiite fédération bi yëpp hmm? waaw alaaji ma Njaay Njaay waaw moom laa wax moo jiite fédération bi yëpp waaw bu dee si soxna yi soxna Lawbe Mbóoj Adja Lawbe Mbóoj moo fi wuutu soxna Astu Faal mi nga xam ne dafa wàcc soxna Astu Njaay ñu wàccub liggéey ci at yi ñu gëna yi ñu génn mu ànd koog soxna mbooy jaañ aji Fat Diop Thiam soxna Fat Fall soxna Maguette fal ak euh, ñu ko àndal ñëpp xam naa ku lim da nga da nga da kuñ tudd kuñ tuddul daal ñu ngi jégalu bu baax ndax xel yenn saa yi day fat ah, kon ñooñoo ñi nga xam ne ak mbooloo mi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ñoo ŋànk liggéey bi ñi ngi sant sunu borom bu baax nag di sant Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo namm ci ñun ñu liggéeyal ko ndax moo ñu def ay murit ba pare namm ci ñun ñu liggéeyal ko ci loolu nag yëg nañ ni nu ñuy dimbali ci saa su nekk jamono ñu nekk ñu ngi yëg ndimbalul sëriñ bi ci sunu kaw ndax yàlla dimbali nañu ba fii musuñu fee werante kenn musuñoo àtte loolu nag ñu sant ko sunu boroom sant ko Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne liggéeyam bii mi ngi ci jàppale ci jamono ñu nekk kon li ñuy def daal booy ñu dellu soñwaat sunu bopp ndax kuy liggéey Sëriñ Tuubaa doo gestu sa ginnaaw doo naw soo jëf saa su nekk da mel ne kuy fas yéene tàmbali di jóg ngir liggéey sëñ Tuubaa ndax daa mel ne da ngay wut loo xam ne amagoo ko te xam nga kañ nga koy am ak noo koy amee kon yàlla na ci yàlla su borom saxal bu baax a baax te mosuñu ci seytaane ba dara bañ a dox suñu diggante li muy seere ci bokki taalib yi fi nekk yéen ñi nga xam ne da ngeen ni suñu gan ñëw fi bi ñu ànd ak ñoom léegi mi ngi bëgg a yàgg te olof njaay danaan lu yàgg rek dëgg la te li ngeen fi fekk de naka jekk moo fi ma a nekk ku ñëw fekk ku ñëw ku ñëw fekk ñu ci ku dem tim bu dellusi da fi fekkaat lu raw li nga fi bàyyi woon kon loolu ñu ngi ci sant sunu borom bu baax a baax di ñaar mu gën a yokk gën a jëm kanam ah li leen di seeral tim ci soxna yee seen mbooloo mee de néew na lool waaye at moo xamee ni ñu ngi fi dajale addi yi dañ fi andi loo xam ne ñun ñëpp daf ñu yéem te nee da li ñuy toll loolu ñu ngi leen di koy seereel doon ay jàmbaar yi ñooy xare aju mboo fi ñëwee leen fi fekk alarba bu ñëwee fekk leen fi te kenn mosu a atte loolu nag jafe ci ay jigéen loolu moom dañ leen di dañ leen di dañ leen di sant cantug cantug cantug euh, à part comme li leen koy sant ndax loolu dama ko yàgg seetlu ci ñoom waaw mbooloo mu néew la ñu waaye seen passif moom foo ko takk weesu na ko seen at yi at mu jot day gën a yokku at day day romb at ma at ma weesu loolu nag passif la mbooloo mu bari moom amul solo li am solo mooy pas pas pas passif bi loolu moom mu ngi ci ñoom bu baax a baax nekk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira bi tamit ñoom ñëpp fiñ ñu toll kenn ku nekk taxawaayu jóorin nga taxaw ñuy mel na nga fekk ñaar ñuy wër garab te fekki woo tàmbali ga doo xam ku jiitu koo fi koo fi koo koo fi laal rek bu taxee fii da nga mooy jóorinu tool bi loolu moom lañu yàlla defal fii waaw loolu nag ñu ngi sàkku ngeen ñaanal nañ ci bu baax a baax a baax ba mu gën a jëm kanam ñu ñëpp kenn ku nekk fonk nga sa moroom yaa ngi gën a téye sa bopp sa moroom ngir jëm Sëriñ Tuubaa loolu nañ ko sant yàlla cant yëpp ñu delloo ko Sëriñ Tuubaa te xam ne euh, njàmbaar amul kuñ dimbalee am kon dimbal loolu yàlla na gën a wàcc fii ci ñun wàcc ci cim ci taalibe yi nekk Côte d'Ivoire gépp ba sëñ bi li mu bëgg fii ci Côte d'Ivoire ah mu ame ko na mu ko bëggee te ñu day see ngërëma kon jërë ngeen jëf yàlla na saa borom yéen tamit tax yàgg seen taxawaay jumaay Tuubaa jee nag sama bokki taalibe yi ñoom ñii ñoo yor jumaay Tuubaa ji te Tuubaa lu muy rëy rëy rëy lépp ak la muy yaatu yaatu yaatu lépp jumaa joo joojee moo ci gënal sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa bi muy wër Tuubaa mbépp gi nga xam ne ca leer gi jollee foofee ca jumaa ja la nekkoon kon bu ñuy wax Touba foofee tax ñuy wax Touba jumaa jooju tamit moo ko ñaanoon boroomam ba mu mel ne mu mel kon ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox mu yore ko cër ba gën a rëy ci Touba moom moom lañ moom lañ sëñ bi jox kon ñoom képp koo xam ne jàpp nga leen na la wóor ni loolee sëñ Touba bëgg na ci kon Sadex Kan mii nga xam ne dafa moo yor liggéey bi di seen di fi seen jëwriñ nañ ko jàppale bu baax a baax ci liggéey bi mu yor na leen wóor ne lépp luñ ci luñ ci lu ci waay def mel ne teg ko ci loxol Serigne Touba loolu amul sikk sàkk kon na maa ci soñ sama bopp di leen ci soññ bu baax a baax a baax ni ngeen taxawee ci tuubaa ci kanam gii nañ ko nañ ko gën a taxawaat ci ci ci jumaay Touba jële Touba ca kanam tubaarkàlla lépp pour Touba gépp maase la waaye jëmi jëmi jumaa ji moom dafa nekk spécial loolu nag bis ne tey moom buñ ci jógee kan mii nañ ko ci jàppale bu baax a baax a baax ndax kenn dong la ci te néew na ci doole te loolu jaaduwul kon nañu dellu subaat Pastef yi di ko ci jàppale bu baax lu ci waaye man nag nang ko ci jàppale ko defee ñu fiy daje at wér joo xam ne buñ ñu ñëwee dañ ko teg ci loxol ñoom ñii ñu joxal ñu ko sëriñ Touba jërë ngeen jëf su ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bal wax ñëpp nan suñu borom boole jéggal jërë ngeen nañu suñu borom defal dégg ak topp ñuy sof suñ kàddu ci fi mu daanelee rek di ziaraat bu baax sëriñ sa Sadex Kane ndax gan yii fi teew ganu. murit yëpp lañ mën nañu wax sax ne ganuk lislaam bi lépp lañ ndax cër bañ yor muy taxawu jumaay Touba comme ni ko sëñ Makumba waxee nga xam ne jumaay Touba moom mooy symbole Touba kon liggéey boobu nga xam ne sëriñ Afia Mbak sëñ Afia Bousso moom moo ko yor ñu koy jaar bu baax di ñaan yàlla woyofal yan bi te ñu daje ceeg ngërëmu sëriñ bi kon sëñ Sadeex yor na ay ticket yoo xam ne dafa màndargawu comme ticket Touba ca kanam nga xam ne moom moo yor liggéey boobu fii ci Côte d'Ivoire samedi bu ne mu yor ko fii alxames bu ne mu yor ko ñàkkul it léeg-léeg ku taseeg moom boo ci bëggee wecceeku mun la ko jox kon loolu it ñu ñaan rekk képp kuy taalibe nga fexe se dugal sa loxo te jàppale ko ci liggéey boobu te xam ne mbooloo mi ñëpp ngi fi ñu yor Tuubaa ci kanam a ngi fi ñu yor tu liggéeyu muqaddimatul xidma bu jumaay Tuubaa ñu ngi fi ku gis seen taxawaay ci weeru koor yi gis seen taxawaay ci set ak sellal jumaa ja defe naa ne war nga ci mën a dugal sa loxo kon euh, ñett ponk lañ bëgg a waxtaanee ñett ponk yépp di fii ci daayira Treichville bi ci njëkk muy historique bi ñaareel bi di réalisation yi nga xam ne bañ fi sampee kër géeg léegi ci doxalin fañ jóge ak fiñ yegsi ñetteelu ponk bi mooy fi taalibe yi am yéene jëmale fa liggéey sëriñ tubaab bi fii ci Côte kon ñu jox sëñ Abdou Lahad Bousso mu gën leen a leeral li nga xam ne mooy seeni tànk daal di bamtuwaat li nga xam ne mooy laaj yi su ko joxee ñu jox sëñ ay dara mu leeral ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci. àddina bi di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di teew fii tamit ci Touba Côte rawatina fii ci kër sëriñ Touba gi nekk Treichville teewal fi daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne Serigne bu Bousso imaam moo ko jiite ñu teew fi ci ndigalul kilifa yi ci ndigalul sëriñ bi nga xam ne mooy jëwrini borom liggéey bi di Cheikh Mouhamadul Mountakha ci liggéey boo xam ne daayira bi dafa bokk ci ay liggéeyam muy lépp loo xam ne moo aju ci leeral ak gëstu ak jàngale sëriñ bi wax na ko léegi daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi sosu 1994 ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké moo ci joxe ndigal tamit wax ñu ni ñu def suñ ko doon tënk nag moom la sëriñ bi dénk lu aju ci wàllu entretien jumaa ji ci lépp lu aju ci wàllu entretien muy taxawaay yi war ci set ak setal ak sansé fa ak defar fa lépp loo xam ne matériel bu yàqu la bu nekk ci biir jumaa ji ak taxaw ci wàllu diine ji ñi ko sëriñ bi bëggee ndax sëriñ bi dafa tabax ab tabax bu rafet bu ñëpp yéem rawatina circonstances yi mu ko tabaxe muy le 7 mai 1963 ñu jël lim bu toll noonu def ko ci jumaa ji ak kondison yi ñu ko defee loolu lay histoire bu rëy rëy rëy te ñi ko tabax boo demee ci seeni kër benn birin almet man koo lakk te muy jamonoy crise di jamonoy guerre mondiale loola sëriñ bi lim ci jublu woon mooy sagam nekk na ci loxoy tubaab yi fanweeri at ak ñett te dara taxu ko woon a jóg lu dul kaweel baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah soo fekkewul ay jamonoom boo ñëwee tuubaa xam li ko boroomam jaral muy boo gisee tabax bu toll noonu ak bu ñu la nettalee niñ ko defare bokk na ci it yim gungee tabax bi te ñaan ko boroomam mooy dafa wax ci ma madal foofu sëy ne wala tudxilil fii fi yadi wa fi daari wa sabitanhu bilhaadil wa fii daf ne ko yow sama boroom nag ma may fii ci sama barab yi ay nit nekk fi baax ba ku ñëw fii da nga ci ñoom ak baax danga ko fi jële tey képp koo xam ne jóge nga fii ci réew mi ànd ak ab jullit wala nga ànd ak koo xam ne naw na sa jikko ba nga wan ko sëriñ bi ba mu xemee ma ànd ak yow ñëw Tuubaa soo ñëwee mën naa yéem tabax bi mën naa yéem liggéey bi waaye su duggee ci tabax bi gis ne nosuwut teguwul ci diine norme yi des na su boobaa dana xeeb kim àndal loolu nag moo tax sëriñ bi ñaan loolu sëriñ bi ñaan gum ñaan rek dana am mooy tax soo ñëwee ci jumaa ji gis ne fii kat diine dëgg dëgg dëgg mi ngi fi lu nosu dëgg mi ngi fi lu jaar yoon dëgg mi ngi fi danga nga mën a jël loolu yóbbu ko ci meneen réew muy dund diine loola ci taxawaay yi daayira Moukhaddamatoul Khidma la bokk muy jubbanti sàppe yaag jële fa lépp loo xam ne yellul ci barab te foofa it mooy fi nga xam ne fi la xoli taalibe yépp nekk ñépp moom la bàyyi xel bépp taalibe boo xam ne gis nga fa lenn lu yellul ci image wala dara ñun xam nañ ci dara maanaam téléphone yi day daal di tàmbali di sone ngir ne ah liñ gis fii neexuñu loolu nag moo tax ma su ngeen fàttalikoo am na ñu fa jekk-jekk woon ñëw rek ne dañuy wër kaaba gi ay jamono ne seen jiit daan ne Sëñ Tuubaa ci boppam moo ko waxoon te seen kilifa googu la ko waxoon ñu wax wax wax ñu të waaye dañuy daal di taxaw mu jaral ñu suñ bàkkan ne ne lii du am ndax ñii gàkkal yoon wi buñ gisee loolu dañuy daal di tàmbali jàpp ne ñun kat dañuy gam-gamle ak màkka ba ñuy ñëw fii naan dañu fiy wër wala dara te yooyu yëpp pexey noonu yi la yi nga xam ne dañuy bëgg a xajamal njàngaleem sëriñ yu mel noonu ci taxawaayu muxaddamatul xidma lay dañe ba set kon loolu ci seen liggéey la bokk ci ndigalul sëriñ Saaliwu tamit ci 2005 moom ci boppam ci coobare boppam moo xool woo ñu ñëw mu ne ñu armeli yii dama bëgg dénk leen ko ngeen saytu ko daal ñuy booleeg suñu Abdou Latif jenn ñu ngi xam ne ñoom ñoo ci armeli yi ci seen loxo la nekk ñu dem fa mu nañu kat dama bëgg ngeen nos ko te teg ko ci yoon ba képp ku fiy ñëwati ngeen xam fu mu jóge lu ko lu ko dal nu mu def ba ñëw fi ak lu ko faat te ngeen saytu doxin wa bu baax a baax loola moo ñu boole loolu bi nga xamee ne 2014 tamit 9 janvier 2014 armée li bàq yi ubbi na it suñu Seydi Muxtaar joyal liggéey boobu ñu gis nos gu gu rëccoon ci armeel yee ñu dabaatal ko ci gi muy gën koo dëppale ak euh, yoon gën koo dëppale tamit ak organisation boo xam day tege ci yoon ba nga xam ne kenn du fa tabax ñu nos ko wutal ko logiciel bu wóor boo xam ne ku fa ñëw ku fa war a ñëw danañ xam ci condition yoo nekk fan yii nii rek ci fan yii nii rek dangay gis léeg-léeg am yu ci bëgg potoxalu fan yii rek am na koo xam ne dañuy tudd ci limu borom ñaari tuur yi te nekkoon Amérique ñu bëggoon ko faa andi fan yii nii rek lañ yëg ne kooku waru faa ñëw ba ñu def ay pexe ba gàntal loolu loolu da ngeen koy gis rek ci image yi ñuy refourler koo xam ne dañ ko faa war a denc topp ko ba mu génn dëkk bi yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xam ne su fa mel noonu amutoon day doon loo xam ne dañ ciy mën a jaar yi dañ ciy jaar loolu ci seeni taxawaay la bokk ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy taxawee ci diine ci wàllu jàng ak jàngale bu mel ne ramadaan koor gi su ñëwee da ngay gis ne jataay yi waxtaan yi day mat fanweer ñu boole ko di dogal ay nit yoo xam ne buñ koy xayma ren dana mat ñeenti junni gën jaa néew bët bu set di ko ànd ak ay boroomi xam-xam di ko tënk ci téere ren ji génne nañ benn téere boo xam ne ahmalu muhadaratu ramadani ya la tudd mu toll ci cent 360 pass yoo xam ne université yi gën a mag dañ ciy jariñu ndax téere yooyu ay gëstu yu noppi nga xam ne day mel ne daal su ma la ko doon misaal ab ndaw kunda day mel ne da ngaa jël dugub bojj ko def ko cere nga xam ne tiim jëfandiku rek moo ci des nga xam ne kii gëstu tey day mën a dem rek ci domaine bu mu soxla moo xam ci tawxiid la bëgg xam wala fiq wala lu mën a doon wala ay question am na ay fatwa yoo xam ne nit ki day laaj diineem ñu tekki ko def ko ci téere bi mu téere bu am njariñ boo xam ne jàpp naa ne su fekkee yéen a ngi gëstu image yi da ngeen gis ne euh, moom it génne nañ ko ak yu bëree bëri yoo xam ne sëriñ bi ci boppam ci coobare boppam moo ñu koy liggéeyloo lu mel ne comité d'organisation màggal gi comité comité boobu suñu alaaj baarab bi mu ko sosee daayira Moukhaddamatoul Khidma la woo dénk leen lu aju ci accueil et hébergement sécurisé muy kër Sëriñ Tuubaa yépp su màggal gi ñëwee daayira bi moo ko yor ànd ko ak daayira wilaya ñoom yor restauration ñu yor mboolem accueil gan ñi ngir la ca aju ci xam-xam ak langue yu wuute yi yàlla dimbale nañu ñu am ay ndaw yoo xam ne mi ngi ci suñ biir ñu doon ay jàngkat ak ay noskat xam ne dañ leen di former ci domaine yépp ñi ñu war a former ci audiovisuel ñu former leen ñu war a former ci diplomatie ñu former leen yooyu yépp ay taxawaay laaj kon nag ci wàllu jàng ak jàngale Serigne Saliou dañu cee joxoon ndigal bu baax a baax a baax ci nañu lépp loo xam ne mooy yare ak jàngale da ngeen da ngeen ci farlu loolu moo tax nag bi biñ gisee ne sëriñ bi bind nañ ci moom bind nañ ci moom bind nañ ci moom ay yooni yooni yoon sëñ Basiiru bind ci sëñ Mahamadou Lamine Diop Dagana bind ci ñu gis na taxawaay yi ci wàllu gën a leeral nit ñi seen diine des na ci la sëriñ Saaliwu ci lañ demoon sëriñ Saaliwu mu jox ñu ndigal ci bayaan yi ngeen di gis nga xam ne àddina bépp a nga koy roy eh, buñ daa xutba xutba arab da ngay gis ne bu ñu leen di waar nit ñi dañuy wax dañuy wax amin ak a nangu ñaan jàpp ne ak ñaan la muy ki nekk ci kaw minbar bi te fekk kooku day wax ak yow ci di la waar loo taxoon ñu sàkk woon ci sëñ bi ne ko bu ñu amoon digalkat di def bayaan boo xam ne day jiitu balaa imaama yéeg ci kaw minbar bi muy waxtaanu wolof yooyu ngeen di dégg bi ñu amee initiative bi gis ngeen ne fépp fu jàkkee sëriñ Touba nekk ci àddina bi ak biir Touba dañoo roy muy lu am solo lu amal njariñ jullit yi kenn dawu ko def lu jiitu loolu loolu moo tax biñ gisee ne suñ Basiiru bind na ci sëriñ bi sëñ la Lamine Diop Dagana ba ci bindkat yu mujj yi am na tamit ñu mas a jóg di topp tànk sëñ bi sëñ Moustapha Abdourahmane Lo def na ko sëñ Mahamadul Mahmoud Ñang def na ko waaye jamono jii ñu toll nag ni ni réseaux sociaux yi yaatoo ak internet bi ni mu yaatoo ak version yi jaadu na ñu jógaat def ab liggéey bu rëy rëy rëy ngir topp tànki sëñ bi ànd kook boroom xam-xam yi historien yi gën a mag ci yoon loolu moo tax sëñ toog wax na ko léegi état bu Sénégal noppi na ñu mu doonoon fukki épisode ak ñett télévision yi mag yi nekk Sénégal yëpp divisé nañ ko ndax ñoom lañ ci àndaloon muy RTS TFM ITV ak télévision yi ko yittewoo divisé nañ ko muy jàngale yoonu sëriñ bi su noppee dafay mën a ànd ak ab téere ab livre boo xam ne dañuy tënk itinéraire yi sëñ bi jaar ba nga xam ne tey su yoon wi doon def lu mel ne tourisme religieux wala ñu bëgg a xam dëgg-dëgg sëñ bi jaaroon danañ mën a am lu leer kon nag ñu nekk ci deuxième étape bii nga xam ne mooy ñaareel bi nga xam ne dañu bi ñu toppee sëriñ ba mu dugg ci gaal gi léegi nag dañoo war a ànd ak moom dem ci géej gi moo tax def nañ état bu Gabon jóge nañ Touba dem Gabon Euh, Libreville Mayomba Njole dem nañ Lambaréné dem nañ Kabla Pees muy Port Santi dëkk yooyu yëpp di liggéey bu metti ndax diggante Libreville ak Mayomba rek 900 kilomètres la 900 kilomètres la. Njole fa nga xam ne fa la sàmmori nekkoon pour nga dem fa da ngay luye loo ca pour dem fa yooyu yëpp liggéey. yu metti la yoo xam ne def nañ ko ànd ko ki boroom xam-xam ba nga xam ne kon diggante bii moo ci desoon loolu tax nag laata ñuy woor jamono yee nag ñu waajoon ngir fas yéene def étape bii ci diggante bi ci lañu amee ndigal ci kilifa yi nag ñu waxtaan ci ak sëriñ Murtada mu Cheikh Abdul Ahad ci lay ñëw tax li ñu indi fii mu boole ñu woo suñu ma Makumba Jaam mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi di jëwriñu liggéey bi liggéey bi sëñ Tuubaa bi fii ci Côte d'Ivoire nañu kat su ma féexoon bu doon doon magalu Saint Blaat Golo yooyu damay ànd ak yéen ba ngeen def liggéey bi waaye nag dinaa leen boole koo xam ne ni ngeen ko bëggee da ngeen ko amee noonu incha allah ci lañu jokkoo ak moom boole ñu ak moom mu dalal ci suñu xel biñ jógee Touba ñu jaar bene muy état bu Dahomey foofa it wax dëgg def nañ fa liggéey bu am solo jaar nañ Togo doog a ñëw fii dimaas ba léegi ñu jël suñu ci aéroport bi Alaaji Makumba dalal ñu fii boole ñu ak sëñ Aliou suñu sa Sadex Kan ñu def liggéey boo xam ne accompagner nañ ñu dalal ñu ci wàllu transport beeg lépp loo xam ne lu ñu saxla woon daal ak liñ bëggoon a jël amee nañ ko nu kawe suñ jort maanaam maanaam maanaam liggéey bi ñu fi def amee nañ fii lu kawee suñ jot liggéey bi nag day ñaari étape ngir ma ñëw ci loolu étape bu njëkk bi dañuy gëstu sëriñ bi ak histoire bi nga xam ne am na ko fii ci Garam Basam ñëw gi mu fi ñëw ñu xool ci waa réew mi ñoo xam ne bokkuñu ak ñun buñ ci amee ay seede ñu def ko xool tamit ci ñi nga xam ne xam nañ histoire bi beneen étape bi mooy liggéeyub sëriñ bi tamit fii ci Côte d'Ivoire dañuy bëgg xam fan la toll histoire bi dañ koy soxla ci kañ la fi daayira yi sosu kër Sëriñ Tuubaa yi kañ la liggéey bi fu mu toll ak fiñ fiñ ko indi ak fuñ toll fi nekk nii ci wàllu wan fànn yëpp ak fi mu jëm loolu la bëgg a xam ci jataay bi loolu nag Sëriñ Aliou yóbbu nañu ci ndigalul Alaaji Magumba Makumba Caam ñu dem ci daayira yi si kër Sëriñ Tuubaa yi nekk fii ci des yëpp dem nañ euh, ajame dem nañ Yuppugu dem nañ tamit Yuppugu waa dem nañ Garam Basam euh, gëstu ya am yëpp jëwriñ yooyu wax nañ ñu yeey histoire yi ak yi ca am yëpp loolu xëy na kon moo waral jataay bii tey nag ñu bëgg a xam histoire kër suñ Tuubaa gi ci Treichville loolu mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ bëgg xam day doon ci bokk ci suñuy gëstu ñu xam liggéeyub sëriñ bi fi mu jógee ak fi mu agsi ak fan la jëm incha allah jàpp naa ne introduction boobu euh, leer na leer na ci ci liñ liñ bëgg a wax dëgg-dëgg kon su ko defee nag bala ñu delloo kàddu gi fekkee duñ jëlaat dañuy profité ci loolu sant kumba Makumba am ak jëwrin yi nga xam ne moom nga ñu booleeloon sant nañ ci bu baax a baax a baax ndax wax dëgg taxawaay bi kawe na njort ci dalal gi ak bernde yi ak transport bi fi ñu bëgg dem fépp liggéey bi yëpp def nañ ba tey jii bu ñu jógee jataay bi daanaka liggéey bi mat na incha allah suba ak jàmm dañuy dellu dañuy dem Guinée Conakry kon ñu ngi lay sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu gën a dëgëral seen taxawaay gën a dëgëral ànd bi ak. liggéey bu rafet bi ak booloo gi ak taalibe gi ñu fi gis ak pastéef bi ak bëgg gi ñu bëgg sëriñ bi ak ñor gu leen mbir mi ñor yàlla na ko yàlla gën a saxal te gën a leen a may ay jumtuwaay yoo xam ne euh, dana mën a yéwénal liggéey bi jëmee ko fu kawee seen jor barkatu Xaadim Rasul fondation xidmatul xadim tamit ñi ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci accompagner gi ñu accompagne jiital suñ baara ak ñoom àll yu Caam mi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di la sant bu baax tamit ci kàddu yi nga yëkkati ndax dëkk kër Sëriñ Tuubaa yi ñu dem yépp it gën nañ koo leeral muy liggéey daayira Muxaddamatul Xidma liñ bëggoon a wax danga ñu koo waxal ndax liggéey boobu du liggéeyu kenn ci ci ñun lépp ñun taalibe yi ñëpp ñoo ko bokk ndax euh, njariñ li nga xam ne ak liggéey bi nga xam ne bëgg nañ koo yóbbu fu kawe mën naa am xëy na keesu Muxaddamatul Xidma rek du ko mën te segam tabax jumaa ji taalibe yi tubaay Tuubaa yépp ko defandoo dañuy jàpp ne li koy sàmm muy worma ja ak entretien ba taalibe Sëriñ tubaay yépp ci bokk war a bokk dugal seen loxo rawatina nag li ci sëriñ bi digee te ci ay tiyaaba ak li lim ci wax moom lañ mas a gis mu ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ loola nag mooy feeñ fii ba ba léegi kon dafa mel ne ñaari saison yi nga xam ne danañuy soxla ndimbal ci bokki taalibe yi muy waajtaayu màggal muy entretien général bi ñu def ak Ramadan danañ soxla suñ sadeexkat ñoom ñi fi nekk ak ñoom suñ tuubaaloo ak ñoom suñ bara yéen ñi nga xam ne yéen ay jëwriñu sëriñ Tuubaa yi ngeen doolal leen ci liggéey boobu ba nga xam ne dana gën a kawe suñ njort comme niñ koy defee ci at mu jot ñu indi addee yu jóge Côte d'Ivoire dana yokk bañ xam ne fii kër kat sagam mooy cosaanu yoonu murit ci biti te jàpp nañ ne addee yi ji njëkk a jóg ji jóge bitim réew jëm ci jumaa ji Côte d'Ivoire rek la jógee kon jàpp nañ ne fii euh, war naa doon tamit bànqaas bu am solo buy jàpp ci entretien jumaa ji ak doxin wa ca yëf yu daayira Moukhaddamatoul Khidma loolu ñu ñu ngi koy ñaan bu baax a baax di ci tàllal loxo euh, ndax ñoo ko bokk dañ leen fa nekkal ngeen nekkal ñu fii kon yàlla leen yàlla gën a dëgëral te sàmm leen barakati xaadim rasul lii tamit xëy na ay addiye la yoo xam ne indaale woon nañ ko muy ay xasiida ak wirdu maxuus bi nga xam ne eh, moom la sëriñ bi def du ñàkk am mbokki taalibe yoo xam ne danañ koy soxla fii mën na nañuy def tawasul ci ndigal li ko sëñ Mouhamadul Muntaxa joxe nga xam ne jox na ko taalibe yépp nga xam ne taalibe bu nekk sañ na koo jël tàmbali ko lii daayira bi mool ko ci njàppandalu sëriñ am samu sëriñ Soxna bu nga xam ne moo ko bind moolal ñu ko mu nekk ci jumaa ja ñu koy jox taalibe yi ñu koy soxla muy ñett ñeenti siixa yépp nga xam ne boo ci jël rek mel na ne def nga ko muy siixatul ak euh, akmal siixatul xaatam siixatul xafif siixatul kaamil yaay xool daal bu gën a woyof ci yow su ko defee dana baax fii ci kër Sëñ Tuubaa gi xasida yi tamit yi ci suñ bibliothèque lañ ko jëlee bibliothèque bi nekk ci biir jumaa ji ñu indaale ko nii rek ngir jox leen ko addiyee Sëriñ Tuubaa ngir feeñal ci suñ yéene kon ñu jox euh, euh, delloo kàddu gi su ko defee taatan liñ bëgg a xam ci histoire bi incha allah ak reportage bi nga xam ne bëgg nañ koo def fii ci kër Sëñ Tuubaa gi mu ñu war koo jariñoo ci MKTV incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mu defal ñu dégg ak topp di dolliwaat di santaat bu baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo liit ñoom ñoo jiite ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey sëriñ bi fii ci dëkk bi doon suñuy jëwriñ ñu leen di sant bu baax. ndax saa su nee ñu ngi wane yoon te loolu li leen ko may mooy seenu Pastef ak seenu taxawu liggéey bi di ko tàmbalee si jëwriñ sëñ Makumba ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ba ci Seydina Alioune mii ndax keroog keroog bi jëwriñ jotee ndigal li rek li tax comme niñ koy waxee ci armée maa ngi jéglu ci kàddu yi am ay léet naa baax ñu la wattu ci liggéey bi ndax tey jii bu ndaw ñi mu ne barkeelu ci liggéey bi di am xemmeb teef ci sëriñ bi dañ koy sante sunu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi jiitu ñi taw woon liggéey bi ba sunu borom wàcce dogal bi ci ñoom ñu fàttaliku leen ci ay ñaan bu baax sunu borom dajale leen ak ngërëmu sëriñ bi dolli seen yërmande ñoom ñii nga xam ne ñoo fi desandi ànd ak ñun liggéey bi suñ borom woyofal yan bi bu baax dëpp leen kàttan ba fépp fuñ bugg a jëmale liggéey bi suñ borom yeggale leen fa barki Seexu Xadim Seydina Alin mii nga xam ne moo ñu jiite ñu ndaw ñi amuñ fayam ñu koy ñaanal bu baax moom it suñ borom dëpp ko kàttan barkeel ko barkeel liggéeyam ndax gan ñi comme ni ko Diorin waxee léegi lim ci def yëpp ñun ñii la ko defal ndax booba léegi ñu ngi ubbi suñuy place di ut luñ def suñ poos wante moom mu ngi tëj palaasam jël carburant dimaas ba tey moom moo ànd ak ñoom tuur yi ñu def nii yëpp moom ñoom ma ko ànd ak ñoom kon nag loolu it faaw ñu seedeel ko mbooloo mi ñu àndal te xam ne fépp foo xam ne nekkuñ fa te kenn nekk fa bokk ci ñun gàddul ñu liggéey bi nañ xamal ne boppam la ko defal wante ñun ñëpp la ko defal ndax ndamu taalibe yëpp la ndax ni nga xam ne sëñ Mourtala jëwe nañu ko wax leen ko ñoom ñii ci seen yoon wi dalal ci seen xel ñu ñëw fekk fi koo xam ne walla fekk fi ñoo xam ne mën nañoo ànd ak ñoom bañ am lu koy jot ci jotaay boobu kon ñun it buñ goree dañ leen ci sant te ñaanal leen ci ñaan yàlla mu doole leen a kàttanal kon duñ guddal dañu jox suñ jëwriñ suñ bàyyi sëñ ay dara su ko defee defe naa ne dégg na laaj yi nga xam ne moom la sëñ Abdou bu Bousso laaj su ko defee mu indi ci ay ay leeral insha allahu rabbi sëñ ay dara min asheytaan arrajim bismillahi rahmaan arrahim barke maam borom Tuuba Mbàkke barke bi Cheikh Massamba Mbàkke ñaan ci kàttanu yàlla mag yonent bi barke maam borom Touba yàlla na fi sëñ Muntaxa Mbakke yàgg lool ca wér ñun taalibe yi ñu ànd ak moom yàgg liggéeyal sëñ bi te luñ ko liggéeyal yàlla na ko nangu sëñ am di mbend faal yàlla na fi yàgg ak njabatuk Cheikh yu bëri yëpp waaw di wax ni ginnaaw bu ñu sante yàlla jullu ci yonent bi ñu ngi am mbégte bi ñu boole ci jotaay bii ah di ko sant yàlla suñu boroom di ñaan lu ñu fi wax rek yàlla na doon njariñ su manqué it ngeen xam ne doomu aadama rek lañ ah dañuy jéem rek yàlla rek a mën yàlla ñu dimbali nag ba bu rëq-rëq daa am yàlla bu mu bari wax ni nag ah, comme ni ko ñépp waxee ñun wenn say lañ wenn say lañ bala ñuy ñëw ci taarixu kër gi wax ni rek 1993 ba léegi lañ fi nekk tudd fédération daayira Cheikhul Khadim noonu lañ koy waxee ci bu dee nasaraan waaye Cheikh Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram ca taasuñ ci barkeem mu ñu tudde woon Nooru Daaray nii bi mu ñu tuddee Nooru Daaray nii ñu boole daayira yépp yi nekkoon ci territoire Treichville mu jox ñu tur woowu ah ñuy dox loolu 1993 la bi ñëwee fii waaye kër gi ci boppam kër gi ci boppam 1947 la ko tubaab yi colon yi jox communauté mouride bi ñi fi njëkk a ñëw ci sénégalais 1920 la immigration bi commencé. waaye li fi jiitu woon ñi ci ëpp ay séeréer lañu woon nekk ay nappkat wala lañu féete ci beneen côté bi lépp ci toolu lislaam la mais nag ay tijaan lañu woon waaye murit yi ñoom Cheikh Mourtada Mbacké Xaadimu Rasuul moo fi njëkk a ñëw en 1945 ànd fekk délégation bu takku boo xam ne ay mag lañu woon di magi lislaam di magi diine mu ànd ak ñoom ñii mu dalal leen nduusi ñii mu dalal leen Agboville ñii mu dalal leen fii ci Abidjan loolu 45 la ñu teg ci deux ans nañu organiser woon daan daje fee ca avenue 7 kër Baye du Diop Murit mu nekkoon fu xat xam naa ci coobare yàlla suñu borom tubaab yi daggal leen fii fii nag bi ñu koy dagg. ay atelier mécanicien rekk fi nekkoon 1947 lañ ko may murit yi bi leen ko mayee en 1947 sëñ Abdoulaat booba jamonoy sëñ Fallou la sëñ Fallou moo fi yebal sëñ Abdoulaat moo fi njëkk a ñëw reconnaître ci kër gi ba mu ñëwee ba mu wér ni pàkk bi am na ndax ginnaaw kër ga ca daaru salaam di këru sëriñ Touba gii moo njëkk ci kër yi sëñ bi njëkk am yaa ngi dégg loolu sëñ laat ginnaaw kër ga ca daaru salaam gii kër la sëñ bi njëkk am ci kër bi fi sëñ Abdou Lahat ñëwee doon gëstu si ba xam ndax pàkk bi dëgg la am na ba mu demee ba wax sëñ Fallu sëñ Fallou daa yebal Alaaji Baara doomam mu njëkk a nekk xalifa ci sët yi moo ñëw fii dafi pose première pierre ah lu nar a barkeel nag day ndax doomi Serigne Touba yi ñu ci bari ñëw nañ fi lim naa léegi sëñ Abdou Lahad mais sëñ Saliou Mbacke ñëw na fi ah sët yi tamit ki fi ëppooni tànk ci gën fa bari tànk mooy sëñ Cheikh Mbacke ngay defar. kon 1947 ba léegi kër gi mu ngi existé magi murid yi nag ñoom doxal nañu waaw ah, magi murid yi ñoom doxal nañu muy bàyyi Cheikh Gueye Mangone bàyyi sëriñ ñas bàyyi Moussa Faye bàyyi sëriñ Xuma bàyyi du jóom murit euh, bàyyi may sa ndiin ñoom alaaji Moussa Faye alaaji Papa Gueye bi dëkkoon njaareem mag ñu baax ñooñu ñépp ak góor gi ñuy wax Mbaalo Ndiaye nga xam ni moo njëkkoon a nekk imam fii ci daayira bi doonu jàngalekat boo xam ne moo fi njëkk a ubbi école coranique ñooñu doxal nañu ñun nag ñun bi ñu fi ñëw 1993 lañ fi ñëw gox goxaan yépp amoon na ay daayira waaye bi mag ñi demee ba xaw a toqi dañoo xalaat ni kat war nañoo dem ci suñuy doom yi ñu ñëw aw ñu ci liggéey bi ndax liggéey sëriñ Touba dafa war a dem kanam rekk waaye warul dellu ginnaaw booba ñun ñi ngi nekk Habitat Arras ak ma gungum yi yor fa daayira bu am solo nga xam ni kilifa gu fi ñëw dang ñu fa fekk ah ñu àndoon ak Pastef bu wér ba sëñ Murtala sëñ Abdul Ahad ñëw fi 89 gis ni daayira yi doxe ak dispersion bi am suñu biir mu fas yéene boole ñu federe ñu bam ñuy fédéré nag mu ñëw waxtaan ak jëwriñ yépp ñu ànd booloo ñun ñëpp bàyyi gox-goxaan yi ñëw fii ci kër sëñ Touba loolu 93 la bu ñu ñëwee ci kër sëñ Touba gi ah ñu ne il faut ñu am jëwriñ ah jëwriñ yépp ba ñu dajee ak kilifa yi fi nekkoon ak suñu baay yu baax yooyu ñu doon wax ñu tànn Makumba mii ni moo leen doy ñu jiital ko comme jëwriñ mu nekk jëwriñu fédération des daayira Cheikhul Khadim loolu 93 la ah ñuy dox boobu sëñ Abdoulaye tamit euh, ñuy dox ba sëñ Saliou Mbacke ñëw bi sëñ Saliou Mbacke ñëwee fekk na sëñ ab laat moom ba mu ñëwee comme ma gumba lañ def comme jëwriñ mu daal di koy nommé comme représentant ni na ko fi nekkal di loxoom di tànkam di bëtam ñu nekk ci loolu ba sëñ Saliou ñëw sëñ Saliou daal di ñëw moom it feddali ko yemu ca mu defub lijaasa firndeel ko bind ko jox ko mag ñi ndax bañ màggalee mag ñi dañoo wax ni dëgg la ñi ngi wéy noonu waaye amuñu nag représentant bu officiel waaw ndax li fi nekkoon rek mooy wéy ma gumbaa fa nekk waaye nag ñun ci suñu mag yi ñun ci suñu bopp ñoo ko tànn ni doy nañu bokki taalibe wépp ànd nañ ci sëñ Saliou daal di koy firndeel jox ko lijaasa boo xam ne bii boobaak léegi ba fii ñu nekk nii ku ñëw ci xalifa yi da nga koy feddali kon taarixu kër gi 1993 la commencé daayira yëpp di fi daje ñu di fi daje nag di fi jàng alxuraan di fi jàng xasida di fi dajal ay addiya di fi saytonte ci suñ biir ndax social am na fi di fi dimbalante lépp rek ngir jëmmi Serigne Touba ca bëgg liggéey bi jëm kanam bi ñu doxee ba quatre-vingt-quinze sëñ Mourtala Xaadimu moom kër gi moo doon këram Côte d'Ivoire la bëggoon lool daawu ko manqué daawu def mukk un an ca ñëwu fi ah mu ñëw gis ni melokaanu kër gi mu ni dafa bëgg ñu yeesal ko jël ci loxo yu tedd yooyu somme bu tolloog cinq cent mille francs jox ñu ko daal nii nañu tàmbali kër gi nañ ko defaraat ba mu méngoo jëmmi sëñ bi ñu daldi tàmbali lu nar a barkeel day barkeel ca version bu njëkk bu boobu melagul nii dinaa ci ñëw ñun ci suñu fonds propre nga xam ne du subvention wu état du subvention wu du benn du Sénégal du Côte d'Ivoire ci poosi taalibe yi la lépp génne ca version bu njëkk ba def nañ ci quarante huit million sur fonds propres yoo xam ni dimanche jot fii la ñuy takk rajo laaj un million un million nangam chaque dimanche ba version bu njëkk ba egg sëñ bi jox ñu ndigal ni nañ fi def madrasa école confessionnelle ñu njëkk fee def une école de trois classes ñu dox ba quatre ñu jàpp ni kër gi war naa melaat neneen ñu ñëwaat pour modifier waat première version ba nee naa leen quarante huit millions la yoo xam ni dërëmu kenn demu ci dul ñaxu taalibe yi képp deuxième version bi bi mu ñëwee def nañ ci trente sept millions kon muy quatre vingt cinq millions yoo xam ni taalibe yi kot ñoo ko indi moo tax kër gi nii ngeen ko fekk nii ca du woon lii ñu yokkaat ci yeneen ñetti classe def ay néeg ci kaw pour enseignants yi parce que li waraloon néeg yooyu première version bi bi mu paree ñu def fi ñetti classe ambassade musulmane yi fi nekkoon di ambassade bu Égypte bu Algérie ak bu Tunisie ak bu Libye bi ñu ñëwee bi ñu inauguré kër gi dañoo rafetlu taxawaay boobu gouvernement bi juróomi ministre ñëwoon nañ ñoom it dañoo rafetlu vraiment jëf jooju ni nag liggéey bu mel noonu mënul am ci état bu day nii commune bu day nii di commune pêche yi nga xam ni mooy commune wu sénégalais yi ca état dugalu ci loxoom ñoom ñu yéemu ci ginnaaw félicitation yi jox ndax juróomi ministre ñëwoon nañ fekk ci inauguration yi alors ginnaaw étape boobu yi égyptiens yi tunisiens yi ak algériens yi ñu ñoom dañuy jox ay enseignants ñoom nag seeni enseignants ñu leen gàddul salaire ñu leen gàddul lekk ñu leen rek li leen war lool mooy logement loolu moo indi néeg yi ci kaw muy deuxième version bi ma wax ni def na ci 37 millions ba ñu joxe enseignants yi sëñ Mourtala Khadim Rasoul moo fi njëkk a désigné directeur bu école bi Euh, sëñ Fallou Niang bu ma juumul waaw ah sëñ Modou Mamoun Niang waaw moom moo fi njëkk a nekk directeur après moom sëñ Mourtala Abdou Khadim non astafurlah après moom sëñ Chérif ñoom sëñ Fallou après sëñ Chérif la sëñ Mourtala Abdou Khadim ñëw sëñ Mourtala Abdou Khadim nag moo ci def jéego am solo yoo xam daanaka moo vulgariser école alors loolu. mooy kër gi mooy histoire u kër gi 1947 officiellement les papiers papiers yi ñu ngeen ñun papier kër gii loolu egg na ci sëñ bi ba sëñ bi ni comme noonu la demee dina fi yebal commission boo xam ne bii dinañ saytu si lépp loo xam ne lii ñu ngi ci tudd borom Tuuba ndax ginnaaw ñun àjjana am na kër yoo xam ni taal yooyu ñoo ko jënd sur fond ñoo ko tabax si fonds propre ñu bëggoo am na kër yoo xam ne taalibe yi ñoo ko jënd si fonds propre ñoo ko tabax si fonds propre basam am na kër goo xam ne bii soxna Kura Fall moo ko joxoon addiya sëñ waaye taalibe yi seen bopp ñoo laxasaay def ko noonu mu mel comme dem ngeen fa gis ngeen jëmmi kër ga alors ci gàttal lii mooy genèse histoire kër gi tubaab yi ñoo ñu ko mayoon waaye ñun yaatu suñu ba ñu ma it feeñal nañ ci suñu pas-pas feeñal ci suñu bëgg-bëgg pour mu méngoo jëmmi sëñ bi fii ñu toog nii ak li ngeen gis nii daaw jéeg la ñu koy sant yàlla nag ci suñu borom yii ak suñu jarbaat yii ndax gis ngeen ñu xam ni ay jàmbaar lañ ndax ku def quatre-vingt-cinq millions ca bokkul ak say addiya yi dem Touba bokkul ak social bi ngay wéyale ci seen biir ba ñu gis ko ba xam ne ñii ay royukaay lañ ñu ñëw tafu ci ñun ñu nit bodduñu leen siisuñu leen ñu yaatal leen jiital leen ànd ak ñoom ñoo yeesalaat kër gi ba mu mel nii lii mu mel nii mooy nouvelle version bi sa fait deux ans mu ni waaw waxtu juróom dañ ko fi julli fajar ba dee dañ koy jël am nañ élimaan élimaan bi ci jamono yi sëñ Cheikhouna Mbacké la euh, directeur école man maay directeur général bi mais am nañ directeur des études boo xam ne bii pour wane ni rek l'islam dafa war a yaatu burkinabé la ñuy jàngale ci école bi ñu ci ëpp amul benn Sénégalais amul benn Sénégalais ya a des Guinéens y a des Ivoiriens y a nañ jàng matière yëpp rax nañ ci sauf euh, maanaam euh, pour cycle primaire la langue français mathématique géographie mais nag boole nañ ci euh, nu mu tuddee ci programme al azhar pour ñu xam lan mooy yoonu murit xam lan mooy xaside yi waaye nag état wu Côte d'Ivoire daf ñu imposer programme ay jullit rek fi jàll c'est une école confessionnelle mais ay jullit rek ñoo fi jàll amul benn chrétien waaye nag am na tuuti ñagas-ñagas parce que Sénégal yi matuñu juróom ci Cheikh Mamadou Murtada yàlla na yàlla yokk leeram ci taas ci barkeem ba mu ñu koy jox daf ñu waxoon yéen ñi di taalibe yi na fexe ba seeni doom ñëw jàng fi xam-xam xam seen diine xam yoonu murid lii nga xam ne moom ci ngeen nekk ba judd ci bu ko defee yéen it mag ñi ku ci sàgganoon ba diinam am lu ko ci rëcc mu ñëw mottali ko si ba amoon na fi ay cours de soir yoo xam ne sama classe bi xam ne jànguñu woon ci lañ tàmbalee woon waaye ba fii may wax nii actuellement nii on a cent quarante huit élèves ñetti sénégalais ci nekk xaw ma bis bu ne bu ma jëlee rajo bi dinaa toog fii wax ko ndax man maay directeur bi maa xam suivi mais ñetti Sénégalais ñi ci des yëpp waa réew mi lañ Burkina bi Guinée Hausa Malien euh, Ivoirien mais heureusement nag ñëpp ay jullit waaw loolu dëgg la ndax bu fi sëñ bi Musaane ñëw ba léegi bi nga xamee ni doomi borom Touba ñëwatul ñii fii ñëw bu ñëwee doo xàmmee Sénégalais bi ak waa réew mi fu jullit nekk fa lay bàyyi ko ñëw pour siyaare si kon loolu taw féex la waaye nag buñ sañoon nit ñi nga xam ne ñoo ko moom ca taxoon mu jóg ñu góorgóorlu ci ba gën cee fay waaw ba gën cee kon kër gi noonu la tëdde 1947 lañ ko may suñ baay yi fi nekkoon 1947 ba léegi kër Sëñ Tuubaa gaa ngi dund ñu nit yemuñ ci rek di fi jàng alxuraan ak di fi jàng xasida ak di def social la def nañ fi kulliyewul boo xam ni Baye Moussa Faye moo ko sasoo woon ba yàlla dogalee mu wàcc liggéey ñun pérenniser nañ ko continuer nañ ko ñu fi ñu toog nii Aliou Thiam nii moom la ñuy féetale dépense yi suñu magum taalibe bi ñuy wax Alaaji Bamba Gueye nekkoon bàyyi ci ñenn ñi nekkoon di jaay wala mag ci ñenn ñi moo ko féete woon dañ ko laaj waaye dafa dem Sénégal ñu féetalu ko nag Aliou Thiam ak euh, sëñ Modou Gueye mais bu sëñ Modou Gueye laajee versé Aliou waaye ñu ngi fi def ku luyoo ñun muy añ ak reer añ bi suñ benn bokkum taalibe bu ñuy wax Fallou Diop di taalibe sëñ Abo Moubaraka moo ko féetewoo depuis deux ans waaw ci gàttal daal kër gi noonu lay doxe l'islam vrai bi nga xam ne moom la sëñ bi santaane ñun suñu kamtalaay kàttan ñuy def liñ ci mën pour ku ñëw fekk fi lu méngoog njàngalam sëñ bi ci la ñuy dox suba ci lay jox ngoon ak solidarité bu wér ndax Cheikh Saliou Mbacké 1993 dafa am taalu bu fi gaañoon yóbbu ko senegal ci ndigalu sëñ Mahmadan Jobbe moo waxoon ndax taalu bem la woon ñu nañ ko indi ñu yóbbu ko waaye xam nga lu war a am rek ñu dem ba sëñ Saliou ci boppam ñu ma gumba ñu dey ñun du tege kenn ab liggéey du ñu sant kenn nit dara waaye day am na loo xam ne day bu bokkoon ci liggéey bi dinañu gënal te ñu neex mbokkum taalu bi moo xam ne ànd naa ak yéen liggéey bi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa di jaamu yàlla mu wàccu liggéey su ma nee nekk ca benn coono du ci am bu ñu ko indilee fii ñu jébbal ko Sëriñ Tuubaa dinañu neex lool kon xam nga ndigal dugg na fekk na ñun tàmbali woon nañ waaye amuñ ci woon ndigal dañ doon def rek loo xam ne jàppoon nañ ni baax na dina dimbali taalibe yi keroog ba mu joxee ndigal yi rek la ñu gumba taxaw fii ko yéwénal léegi dix mille la bu fekkee yoonu suuf la bu fekkee yoonu kaw la trente mille la ci ku ci bokk su ko defee ku wàcc liggéey ca bokk ci ñu saytu la bu fekkee sa bëgg-bëgg la bokkoon wala sa bëgg bi bokk ñu yóbbu la Sénégal waaw noonu daal lañ fiy doxe dégg nga amaguñu ndigalu julli fa àjjuma nag ñu ngi koy bëgg a sàkku ndax jaadu na waaw kër gi mooy kër gi njëkk ci kër Serigne Touba yi yaa mosu ko ci ginnaaw gi la sosu waaye ñoom sëñ Mourtala moo leen joxoon ndigalu ñu def fa juma ñun nag ñu ngi waxtaan suñu biir pour seet ni ñuy sàkkoo ci Cheikh Mamadou Mountakha pour mu jàppale ñu ba ñu def ko juma ndax dañuy jëggaani fa ñuy dem nag jàkkay sénégalais la waaye nag kuy wàll yaa ni sa làmb tëggul comme suñ bos bii nag moom mat na làmb mat na tudd mat na tabaski war nañoo mën a am juma waaw bëgg nañ ko dagaan ci sëñ bi waaw ci gàttal daal sëñ bi kër gii këru barke la ndax sa sampub sëñ fàllu moom du dellu ginnaaw ci sëñ fàllu ci jamonoom lañuy jox kër gi ci jamonoom la fi yebal alaaji sëñ Abdoulaat mu ñëw saytu ko ci jamonoom la fi yebal alaaji Baara mu njëkk a nekk sët xalif général mu ñëw def pose première pierre barke booba nag moo ñu topp ba nëgëri gis ngeen ni kër gi taaro ñu ciy sant nag suñu doom yi bu baax di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla yokk seen fan yàlla dooleel leen ba ñu gën ñoo sagal ndax suñu sag lañu ah suñu jëwriñ jiit jigéen diwuñu mu gumba ci waaw jigéen ji wuñu de ca ñu ni ko dand rek nag topp ko rek ngir sëñ Tuba buñ gisoon leneen ci moom it li ñuy def weñ ci soow lañ koy def waaye nag sëñ Tuba ko ñor léppam jeex na ci sëriñ Tuba loolu la ñu ànd moom ci kàttanu yàlla bu fekkee question boobu répondre naa ci li ngeen bëggoon mu ni mu ni présenté wu yow. waaw man de Aïdara Seye laa tudd man maay secrétaire général daayira bi waaw maa ngi bokk ci daayira bi 1991 laa ci ñëw fële ca Habitat Arras ca Magumba boobaa léegi nag ñu bëgg ami fan waaye nag man taalibu Cheikh Massamba la sëñ Mahmadane Jobbe ci moom laa jébbalu 1962 avant may ñëw fii kon damaa indaale fii sama taalibe waaye nag dëgg dëgg dëgg doxal gu ma doxalu taalibe nekk taalibe Serigne Touba bu am conviction 91 la bi ma ànd ak ma gumba mii waaw jébbalu woon naa nag waaye nag murid laa woon rek waaw waaye nag léegi nag laa doonu taalibe boo xam ne bii liggéeyal Sëñ Touba dong moo ma ñor waaw leneen ñor waaw yàlla it dogal na bi ñu àndee di dox ba ñu créer école bi ah comme yàlla dimbali na ma am naa tuuti lu ma gëstu ci njàngum tubaab xëy na sama àll xaw na cee sori ah ba ñu ci dimbali suñ borom ñu joxuma ma école bi teg ko ci sama loxo li ma yaay directeur bi boobaak léegi maa ngi ci di ci lanti lanti eh, ñi ma ci jàppaleeg ba léegi sant nañ yàlla bu baax bu njëkk dañ daan am ay difficulté pour fay enseignants yi léegi nag dem nañ ba école bi ci boppam wëlbatiku na di dimbali daay rek di contribuer ci ni daayira bi di dox loolu sant yàlla la waaye nag jàmbaar amul de ku ñu dimbalee am Cheikh Mamadou Mourtada ci barkeel moo ñu dimbale ndax moo ñu joxoon boobu ndigal waaw. dama déggoon waa loolu maanaam ay rumeur la rek. waaye comme ñëw ngeen ci source bi dina leer mos a génn ci loxoy taalibe yi. parce que bañ daan am difficulté di fay salaire sax taalibe yi dañ naan ñu ñàkku maa yoroon liste ñu diw fay dix mille ngay laa la diw cinq mille laa diw trois mille laa la sas diw deux mille ba ci mille francs pour ñu mun di fay salaire yi mais dañoo toll jamono boo xam ne bii école bi dafa demoon ba daanu complètement ngeen jégal mu ci waxin bi kii ko yor tey nekkoon ajame di jàngale comme madrasa waaye foofu amul woon yi élève te ñun ñii amoon nañu élève mais amul woon ku mën a saytu école bi comme nañ ko bëggee li ñu waxtaanee suñu biir waa ajame baax ñu ko mu ñëw ñu ñëw wane pas-pas wane bëgg-bëgg wane njàmbaar loo xam ne amuñu woon cent cinquante élèves amuñu woon sax cent élèves léegi ñu ciy góorgóorlu ñu ànd ko nag man bàyyiwuma ko di ko guider di ko teg ci yoon fu ma gis ni bunt war na faa mën ubbeeku ma dem làmb foofu ñu ànd ko di ko def di ko def ba école bi taxaw ku ñu wax oustaz Moumin yoroon fii benn école fii ca moom amul woon espace ndax amoon nay élèves mais amul woon ay classe ñëw indi ay élèves am comme ñun amoon nañ ay classe ndax jógewoon nañ ci ñett classe ba ci juróom-benn classe élèves yooyu ba ñu ñëwee ñu commencé am du monde am ay deux cent ay trois cent école bi commencé di suqaliku oustaz Zane nekk ci di jóge ko daanu di jóge ko daanu ba école bi di coleet mus ta dem ci loxoy waa réew mi mus ta dem ci loxoy Bougnaal bi mus ta génn sama loxo bii ak jëwri ba bi nga xamee ni dem na ba ni coleet laa leen woo ñoom ñii yooyu comité de gestion ñu ànd ci ñoo ko yor musta génn suñu loxo al nag lañ ko tuddee woon au départ waaye mosuñ fa teg seen tànk sëñ Saliou ñëw na fi benn yoon mais fa la yem ñoom école bi ñoru leen xamuñu lu ñu ne wax man dëgg rek laay wax je le dis et fort fu mu egg ñoo ko feggale ginnaaw yàlla waaw waaye mosul gën suñu loxo waaw li jàpp ni moo des de mooy xam nga lu ñëw jamono ndax bi ñu daaw jéeg walla daaw am na suñ mbokkum taalibe mu fi may ay suuf feete Yamoussoukro bi ñu demee di ko jébal sëñ bi sëñ bi nee na da koy toftal. ci université Cheikh Ahmadul Khadim ba nekk Touba mu nekk annexe ah kon nag ñun jàpp nañ ni comme loolu bu projet boobu tàmbalee ndax am na comme ñu booleel koo xam ne kii dina ñëw ci jamono yi sax ñun sëñ Modou Mamoun mu sëñ Fallou moom la tofloon léegi suñu diggante ak waa réew mi pour mu mën a coordonner loolu ba ñu mën a commencé liggéeyu université boobu nga xam ne mooy doon annexe su université Cheikh Ahmadou Bamba bële ah léegi nag yàlla dogal na ñun suñu école bi mu ngi dox xale yi fi daan génne nga xam ne entrant sixième ak CEP lañ daan am buñ ci amaanub jaaxle ñi seen bàyyi am mooy dañ leen di yóbbu Sénégal ba am na ci xale yu bari yu nekk Sénégal léegi nag bu ndimbal amee école bi avant muy ñëw ñun autorité yi nga xam ne ñëw nañ fi déjà xam ne école baa ngi fi am na six classes introduire demande de subvention mi ngi en bonne voie. reconnaître nañ ñu ba fi mu ne nii DREN lañ DREN mooy direction régionale de l' éducation nationale ci côté confessionnel bi bépp euh, euh, réunion bu ñuy def muy technique wala muy pédagogique ci territoire très fii lañ koy defee kon jàpp naa ni bu ñu sëñ bi gënee dimbali bu ñu doxee feeg jëmmi jamono ah li ñu bëgg dinañ am dinañ am ay techniciens yu fiy génne parce que dugal nañ ci enseignement bi léegi informatique ak anglais. waaw ginnaaw bu ñu weesoo les matières classiques français mathématiques euh, géographie sciences naturelles yi comme yooyu ñuy jàng léegi dugal nañ ci informatique dugal nañ ci aussi un peu d'anglais sans léegi li ngeen wax ni mooy fiq ak tawhiid ak yooyu nga xam ne moom pour ñu jàng alxuraan la loolu man bu sama domaine donc nu ma cee xuus lu trop ñu ngi koy jàng ci waaw ñu bëgg nañ tamit euh, ñu commencé xaside yi loolu nag comme ni ma la ko waxee li ci ëpp ci xale yi li ci li ci xale yëpp waa réew mi li xamuñu mouridisme ni mu war a doone donc pour nga imposer leen ko problème am nañ cérémonie bu ñu war a def fii le douze muy distribution des prix bëgg nañ bu boobaa bu ñu jëlee kàddu xamal parent yi nii rentrée prochaine dinañ instaurer njàngum xaside yi ci programme bi parce que il faut nga waxtaan ak ñoom tàggat leen ci euh, pour ñu ñëw. et puis école bi aussi sociale la 1000 francs am na ci 2000 francs am na ci 3000 francs am na ci ñi ci gën a kowee cinq mille ñuy fay waaw kon loolu c'est du social am na ci ñoo xam ni du ñu fay parce que amuñu moyen seeni waajur ñëw nañ ni ñu mënuñoo fay ca bëgg nañ seen doom jàng seen diine ci sëñ Mourtala daf ñoo waxoon ni na ngeen ci jàngale diine fexe leen ba nit ñi xam ci seen diine xam ci seen lislaam kon moom jubluwu ci woon koom-koom ñu nit wutuñ ci koom-koom jàppale nit ñi bañ xam seen diine moo xam muy waa réew mi moo xam muy sénégalais yi na doon lislaam na doon ab julit voilà foofu mu ni waaw ah, tubaar rek yàlla nañu yàlla boole jàmm yàlla na yàlla tàmpe xol yi ba ñun bokki taalibe yëpp ñu ànd rek nekk wenn say di yëkkatandoo di tegandoo ginnaaw bu ñu yàlla mayee wér may ñu gudd fan barkeel ñu barkeel njaboot yi e, suñ jëwriñ ji yàlla gën koo dëgëral gën koo bàyyi suñ kanam ca jubale ñu loolu daal moom lay tàggatoo maa ngi leen di gërëm di leen sant nag jërë ngeen jëf alhamdulilah ñu dellu di santaat yàlla bu baax si ni ñuy tàmbale woon jotaay bi si ndimbalu suñu borom ñuy dem ba war koo tëj di sant bu baax suñu bàyyi sëñ ay dara ci leeral yu am solo yi nga xamante ki ni indi na ko ci liggéey bi buñ ramassé ñi nga xam ne ñëpp jot nañ fee yëkkati ay kàddu tàmbale ko ci jëwriñu liggéey bi di sëñ Makumba ba ci ay dara ba ci man mi nga xam ne ci seen ndigal laa doon jotaay bi point bu mujj bi muy perspective yi danañ ci dolli tuuti muy war niru complément d'enquête ndax euh, ci ay question yi nga xam ne nii sëñ Abdou bu sa laajte na ko ay yoon dégg nañ muy leerlu waxtu julli yi fii naka la demee ndax ñu ngi fi julli waxtu juróom yi dellu si waat di laaj ndax dinañ fi julli jumaa kon ñu xam ne liggéeyu sëriñ bi génnut lislaam te lislaam bi dafa féete woon kaw lépp te julli ci la bokk fii ci territoire Côte d'Ivoire nag bu weesoo Yaamur Yamoussoukro amut benn këru Sëñ Tuubaa bu ñuy julli juma ak loolu moo taxoon ci mbooloom xidmatul xadim Moustapha Fall ajjana doon ko jiite te nekk jamono yi Sénégal Seyna Aline wuutu ko ci di ko jiite ak sëñ Fallou Bay sëñ Bara Fall ak sëriñ Moustapha Dieng ba ci man yi nga xam ne ci secrétariat général bi laa nekk loolu moo tax suñ yéene bu jiitu mooy kër ga nga xamante ki nii comme ni ko suñ bàyyi ay dara waxee taalibe yépp ñoo laxasaayu ci seen fonds propre fexe ba amoon fa kërug sëñ Touba ca Touba yëpp gong kër googu yéene taalibe yi mooy ñu fay julli waxtu yu juróom ak ajjuma yi ak it yi loolu moo taxoon ci phase terminal bi lañ toll woon pour jagal lépp li nga xam ne suuf gi la te ci weeru koor wi ñu amal ci ay jotaay yu am solo dajale ci ay addiya ba toll nañ ci uti ndigal ngir mun koo ubbi fas yéene di ko julli ajjuma nga xam ne kon bu ci Abidjan suñu suñu borom dimbalee yàlla nañ ko suñu borom defal ñu mun a am kër sëñ Touba boo xam ne njabootu sëñ Touba ku fi wàccati fii ci Abidjan mun faa jullee ji ajjuma loolu it si tegtalu sëriñ bi ñu am yaakaar bu baax ci Touba yëpp gon ñu koy seedewaat jëwriñ ak ñi nekk ci jotaay bi te lu bari ump leen ci liggéey boobu ndax Serigne Mountakha yal fi yàgg te wér jamono yii bi nga xamee ne ni ànd nañ ak ñi nga xam ne ñoo fi jiite l'islam bi muy COSIL ndax Côte d'Ivoire këru diine yi ak ñëpp dañoo tënku ci benn kuréel bu ñuy wax COSIL nga xam ne imaam yi ak ñu yor jàkke yi ñoom ñoo ko jiite bi sëñ Cheikh Gueye joxe addiya suuf soosu mu toll ci cinq hectares ak lu topp ca Yamoussoukro ku tedd ki daf ne suuf soosu de institut de formation la koy def toftal ko ci université bu Touba daa ci suñ xam-xam bu gàtt mosuñ dégg Serigne Touba fu mu invité ku nekk bitim réew bu wuy si ko ci wàllu diine ci waa Cousine yi la njëkkee nga xam ne sëriñ bi moom moo leen adressé lettre d'invitation invité leen pour ñu wuy si ko ca Touba ñoom it ñu ñu woyof di ñu am tawféex keroog bañ jotee lettre bi seen programme yépp dañ ko ajourné dañ koo bàyyi ngir mun a wuy ji tedd ki sëriñ Bousso wax na ko léegi Touba day sagub lislaam di sagub murit ndax képp koo xam ne xam nga taw féexu fekke wa jamonoy sëriñ bi boo fa yeggee gis jumaay Tuubaa bi képp doy na ci nga xam nga xam suñu borom li mu fayee sëriñ bi te ñooñu ñu àndaloon nga xam ne ki ñu àndaloon bi ñuy dem jiite na lu toll ci mille mosquées yu tegal fii ci Côte d'Ivoire ak huit cent imam yoo xam ne moo leen jiite moom moo nekk ci bopp bi mais kor bu mu duggee Touba li njëkk leeral mooy moom day Côte fii da daan seen murid yi fu sori di am lépp loo xam ne daanu ko dégg ci yoo xamante ki ni ñun ñu feggu lañ ñu beru lañ ndax sax yeggoon nañ ci ne ndax ñun ni ñuy doxee bokk na ak diini lislaam mais keroog ba mu lu njëkk wax mooy murid yi day sunnat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy dundal ni koy dundalee gisul benn kuréel bu koy dundalee moom loolu la njëkk a yëkkati ci ay kàddu nga xam ne firndeel lii sëñ sa wax léegi nga xam ne ku dugg Tuubaa rek da daal di nangu liggéeyu sëriñ bi day daal di tàbbi ci sa kon it li nga xam ne moo desoon ci liggéey bi te boo xoolee lii suñu waajur wax sëñ ay dara léegi ci taxawaay bi nga xam ne ñun ñii ñoo ne ci dëkk bi yor suñuy njaboot te waroon leen dugal fii ñuy xeentu njàngaleen sëriñ bi ñu leen ci tàngat des na wante li nga xam ne moo gën a war a dugalaat waa réew mi ci liggéey bi loolu ci la bokk te loolu mooy ouverture mooy gën a yaatal gën a xamale liggéeyu sëriñ bi ndax ñu ëpp ci ñun doon nañu ay murit laataa ñu yegg si ci dëkk bi donc li ci desoon mooy liggéeyu sëriñ bi ñu feeñal ko boole si ñëpp ba ñëpp buñ cee ñëw ànd ak ñun ndax sëriñ bi moom xanaa nga ñàkk koo xam mais boo ko xamee faaw da ko jublu faaw da ko bëgg faaw da nga ko da ko da nga ko xenc te foofu lañ toll ci liggéey boobu comme ni ko sëñ bi waxee moom dem na gan googu dem na ba ci tawféex bu ko suñu borom defal lim njëkk a sàkku ci sëriñ Muntaxa def na ko su ma sañoon nga ñaanal ma ndax dama jiite kuréel bu mag te soxla naa ñaan te it Côte d'Ivoire doon dëkk boo xam ne xeet bu bari dañ faa daje maanaam melting pot la ni ñu koy waxee nga ñaanal ñu dëkk boobu am jàmm ndax xam naa ne boo ñaanalee beneen ko am li ci dolliku mooy damaa bugg nga tànnal ma koo xam ne ci sa tur lay jógee ci yow lay jógee ñëw fekk si ma ci biir Cosim di ma digal ak di ma xelal kon loolu lu ko wel si la sëriñ bi tànnee kooku sëñ Aydara tudd léegi muy sëñ Modou Mamoun Mbacke moom sëñ Fallou nga xam ne dina fi ñëw bu yàggu dara incha allah ñu ngi koy euh, le 11 waaw kon joxe na date bi nee na le 11 bi dina ñëw kon loolu nga xam ne murit gi kon amaat na ndam ci dëkk bi te loolu taalibe yi la kon it loolu it ñëpp ñu fas yéene teertu leen di ñaan yàlla mu yeggal si leen ak jàmm te liggéey boobu nga xam ne liggéey yëkkati nañ ko ca Yamoussoukro taalibe yëpp gën see jàpp jàppaat tax luy gën a dundalaat lislaam bi la ndax foofu boo gisee seen i la gis nañ fay jullee la fay julli moo ëpp fopp taalibe murit ya fay julli te murit gi foofu la toll fii mooy kër sëñ Tuubaa bu ñëpp ci biti boo génnee mais néew na waa réew mi ñu bokk ci ci liggéey bi xemmem liggéey bi gis ñu ba ñëw topp ci ñun kon ñëpp gong foofu foofu lañ ko yaakaaree foofu la ñu sëñ bi joxal joxañ ñu ñëpp nañ euh, jéem a laxasaayuwaat ànd foofu mu yegg ndax biñ ne dañuy relancer liggéey bi rek woo jëwriñu commune yépp ku ci nekk ñu sas la jullit yay jullee ci biir daayira ba ñoom dañ ne ci seen kees am nañ un million pour ñu yeggale suuf bi nga xam ne foofu bu ñu leen bàyyi woon ñoom ñu yeggale ko mais nag sàggante weesuwul ay murit ay taalibe laxasaayu jënd suuf tàmbali ko ba mu des finition du ko bàyyee ñeneen ñu koy yeggale loolu moom ak yaafus lay nuróo suñu borom dimbali mu jëwriñ woote ne kenn ku nekk na nga dem ci sa commune ut addiya bu ko defee kuy ñëw fekk si ñu si mais dañ ko tàmbalee ñoom ñu ñun njëkk a wax mooy am nañ un million si seen kees te ba kër ga tàmbalee ñoom ñu fay julleeg léegi ñooy fay courant bi ñooy fay ndox mi ñooy yar nettoyage bi kon foofu sëñ bi wanaat nañu fa leneen kon ñupp gon doon na kër Serigne Touba goo xam ne maanaam mun nañ wax ne confrérie yépp ko bokk ñëpp ñoo fa ànd di fa liggéeyal suñu borom kon defe naa ne suñ perspective yëpp mooy li nga xamante ki nii joxuñu sëriñ bi la muy yaamu sukuru ga la nga xam ne bugg na fa institut te nga xam ne bi ñu ko xaymaa toll na ci 14 milliards kooku moom bu tàmbalee liggéey boo xam ne yëkkati woon nañ ko fii xam naa ne day daal di dem sofu ci liggéey boobu ndax loolu du du du lu ndaw kon loolu mooy joxuñu sëriñ bi perspective bi gën a mag gën a nekk suñ kanam te sëriñ bi dem na ba ne yaamu sukkuru foofu mooy buntu tarixa murit ci li des ci Afrique noonu la ko sëriñ Mountakha waxee bi kilifay toogee kon ñu bàyyi ko xel xam ne ñu nit amaat nañ beneen tawféex kon àdduna dara du hasard buñ ne fii moom moo nekk kër gu njëkk ci kër sëriñ bi boo génnee bu commencé université Touba ñu jox koy suuf mu ne day koy defaat université taftal ko ci université boobu kon loolu it mu doonaat loo xam ne tawféex bu ñu am ñun waa Côte d'Ivoire lañu kin fi yebal mu donaat koo xam ne bu ñëw daanaka day mel ni un ambassadeur itinéraire ndax noonu la ko sëriñ bi sàkkoo kuy ñëw day ñëw ci kilifte bu doon comme un itinéraire nga xam ne jullit yi nekk fii ñoom ñoo manko ne ko tànnal ñu doy nga ñu tànnal ñu koo xam ne day jógee ci sutur ñëw dollee ko si ñun di ñu xelal di ñu wan yoon ngir ñu mën a barkeelu ci selluk liggéeyub selluk lislaam bi nga xam ne gis nañ ko ci Touba dem na ba ne mouridisme secret caché la mais secret bii nga xam ne dafa kase ñun danañ ko toj xam secret bi jëriñu si comme ni ci taalib bu murid yi jëriñoo kon loolu moo xam ne tawfiix la yoo xamante ni lépp képp kuy yeewoo Côte d'Ivoire doon murid war nga jaajuwaat war nga takkaat sa laxasaay te kenn warulaa soññ ci liggéey bi ndax sëriñ bi saa su ne mu ngi bàyyi xel liggéey bi ba si seen ñëw bii ñu war a ñëw la onze sëñ bi ci boppam moo waat sëñ Modou Kara na ko loolu ma leen doon yebal de jàppat leen diggante bés bii ba bés bi jàpp leen ci bés ngeen dem fa sëriñ bi yàlla na fi yàgg te wér amul benn liggéeyu sëriñ bi li muy yaatu yëpp yëpp yëpp yëpp li ma ci seetlu mooy liggéey boo xam ne tàbbi na ci noppam mu ngi koy bàyyi xel te bu waxta ñu dina ci joxe kon kooku yàlla na fi yàgg te wér barki Cheikhul Khadim te ànd ak moom liggéey bi barki borom Tuubaa. may ma am lu ma préciser tuuti rek. may préciser bariwul mais dafa am importance. Euh, loo gis rek yàlla da cee am solo. xam nga wax naa ne ñu fii sant seen fàll bi ci dërëm bi keroog bi ñu tàggoo ak waa cousin yooyu ndax ñëwoon ci jotaay sëñ bi ñu leen di jox ay téere téere bu sëñ Fallou bind moom la leen njëkk a jox leen téere yi Cheikh Oumar Fall deuxième xalifa général de Mouride moo ko bind soo leen cee tegal dina lu baax sax yi bu sëñ Bassirou bi kii nag sama waa ko bind kon xam nga sëñ Fallou mooy sant kii muy tànnal mu war a nekk intermédiaire entre ñu la waa sëñ Fallou waaye nag damaa bëgg a préciser loo xam ne lii dafa ci am solo Treichville euh, kenn demul mu des école boo xam ne bi nee naa on six cent six cent quarante huit élèves a ngi ciy jàng matul cinq sénégalais kon intégration ak yaatal ak bëgg nit ñi ñëw am na fi ñun amoon nañ six classes am na ko ñu tabaxal plus de trois classes def ci commodité yépp sept classes def ci commodité yépp lim ci dépensé ëpp na quatre-vingts millions Burkina rek kon intégration mënul weesu loolu ñun li ñu war ñu koy def yàlla nag moo yore mbiram fii ñépp ko bokk jullit yépp am nañ nag benn problème boo xam ne bii seex si sang si leen ñu ci dimbali ndax imaam dañoo wax rek ñu nekkul jullit te ñii di ñu jàppale di yóbbu liggéey bi fa mu egg du ñu sénégalais pourquoi sénégalais ak ku dul sénégalais waru fee jiite luy ndeer su manque intégration amee ci ñoom la waaye ñun li ñu war ñu ngi koy def nañu dimbali bàyyi ñu seet ki ñu doy comme imam ñu teg ko fi coow loolu jeex su fekkee am na dara lu ñuy xebat ci loolu lool la ndax ñii fi nekk mat nañ leen doon mat nañ ñu war a doon xam nañ diina ji xam nañ lislaam te ca lañ teg seen tànk bu ñu yaafu soon lii du fi am nit ñaa ngi ñuy xemem di ñu xool xool ni ñuy doxee di ñu ci roy nañ ci gën a góorgóorlu bay nag ci say wóob yaam sukkuro yëpp goo lépp kër sëñ Tuubaa waaye ñun fii la ñu moom nañ ci gën a góor def ci li ci war luñ ci bëgg am ko ci ngeen baal ma waaw loolu euh, sëñ Abdoulaye day firndeel ne bi gan yoo indi yi ñoom ñii bokkoon nañ nga xam ne sëriñ bi njàngale da ko ñor xam-xam da ko ñor ña nga xam ne ñëpp tànnoon na leen ngir ñu yor délégation yooyu bokk na ci ki nga xam ne nii moom mooy euh, imaamu grande mosquée bu Touba bokk na ci sëñ Ahmed Badawi moom moo jiite woon délégation bi nga xam ne moo waroon dalal gan yi ak sëñ Fallou mi nga xam ne moom mooy jiite naafile yi ci Touba ñooñu ñëpp ñu ngi waaw sëñ Afia Bousso la tudd kon mooy imam bi kon ñooñu ñëpp ñi nga xam ne daal ni ñu koy waxee laa la crème de l'intelligentsia mouride borom xam-xam ñëpp sëriñ bi da leen mobiliser ngir ñu teerul ko gan yooyu xamal leen ni Touba moom boo ñëwee ngir xam-xam rek di nga am ñu la teertu boo ñëwee leneen ci diine lu mën a doon da nga am ñu la teertu kon defe naa ne kàddu yi loolu la woon sëñ sëñ Makumba defe naa ne kàddu yi loolu la woon kon ñu jox la nga sëriñ bi sëriñ Omar Top ak sëñ Aydara Sey kàddu yi am na solo lool wax dëgg jàpp naa ne vidéo bi bu génnee dana amal solo lool jullit yi ak taalibe yi rawatina ñi nekk ci Afrique surtout sous sous raison bi bërki dem rek maa ngi koy wax sëñ Aliou ma ne ko fii ci Côte d'Ivoire jàpp naa ne war naa mën a doon échantillon ci Afrique ak ci Europe sax pour ñuy roy euh, li fi jóge surtout seen semaine culturelle bi ngeen organisé jamono yee ci ginnaaw nga xam ne jàpp naa ne lu bari ci liy juddu ci intégration bi ci foofu la foofu la juddoo sëñ bi euh, sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu yal nañ ko yàlla fayal bi muy ñaan ci ci géej gi di ñaan ay futuxaat barab yu mel nii moo taxoon waaye nag dafa bëggoon ñu dëppale ko ak xam-xam waaw dana ini ujahidu bil ulumi wa loolu tey dafa mel ni foofu ngeen jëm yéen a ngi bàyyi xel loolu ba tax ngeen jox cër xam-xam jox cër xam nag mooy tax tey école bii yëpp kër Sëriñ yi fi nekk ak université bee ñu war a tabax mu war doon centre de recherche centre formation boo xam ne mën nay former ay duxaat duxaat yi yu jàngale diine ak yoonu sëñ bi ci mboolem sous raison bi yëpp mën nañ koy jëggaan si fi comme ni fii doone euh, tegtal ci ci tàmbali liggéeyu yoon wi fii euh, ni ñu ko waxee léegi délégation boobu ñoroon na suñ Muntaxa lool ñun xam nañ ci dara lool woon na suñ kilifa si ñaar fi ne dama am gan ñu ma fonk bëgg ngeen waajal ay gëstu yéen Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin ngeen teerul ma ko berndeel ko ci xam-xam ba noppi berndeel ko ci ruu muy ruu yi ak ak jëmm yu am waaw loolu moo tax ñu waajal ay boroomi xam-xam ñu organiser foofu noonu ci Hizbut Tarqiyyah man mii maa ngi foon bi noppee ñu dem université dem ci sëñ bi sëñ bi jox ko fa ay cadeau ak ay téere yu bëree bëree bëri visite yooyu nag ci Touba fi mu ne nii ubbiku na lool ci xam-xam addina bi fu ne la nit di jógee di ñëw di gëstu si ci Touba te loola xam-xam la ñuy gëstu bërki démb rek fii la ñu fekk am na ay lu mat ñeent fukk yoo xam ne ay français lañ ñëwoon doon gëstu doxinu mouridisme ci yoon wi dem université ba jógee fa ñëw jumaa ja ak yu demee noonu fii may waxee yow ñetti fan ay américain ak ku ñuy wax Maram Kayre nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu astronomie muy euh, xam-xamu biddiw xelmu nujum ak waxtu ak xibla moom lañ ñëw di gëstu si Tuubaa fi fi mu nekk nii ndax xam nga sëñ Mbàkke Buso ci àddina moo ci sut ci wàllu xam-xam tey ci ndigalul sëriñ Tuubaa la la moo ci sut ci àddina bi maanaam tubaab bi biñ ñëwee njëkkoon nañ fay ñëw gis montre boobu sëñ Mbàkke Buso defar jàppoon nañ ne ci àddina ñoom ñoo ci jiitu ñoom américain yi waaye dañoo gis Touba lu leen yéem ba tax na dañoo indaal dañoo dem indiwaat seen universitaires yi ñoom ñëpp ñu fiy def ñetti fan ci Touba ngir gëstu xam-xam bi nga xam ne moo nekk fii ci Guédé di doxal waxtu yu juróom ndax montre boobu suñ suñu Mbàkke Busso taalif nga xam ne fanweeri at ak ñett la ko taalif xane amul benn bis ci àddina boo xam ne euh, na muy mel xamu ko bis bis bu mën doon ci àddina na muy mel xam na ko waaw loolu nag lu jaaxal tubaab yi la maanaam kii moom def ba am xam-xam bi beneen bi xam na bis boo xam ne bis bii jant bi day tiim kaaba gi am na bis boo xam ne xam na ne bis bi am na biddiw boo xam ne heure bi bu génnee day tiim kaaba gi nga xam ne jumaay Tuubaa ñi ngi ko natt ci ci ci ci ci jumtuwaay yu mel noonu am na benn tubaab français ingénieur français ci wàllu astronomie boo xam ne bi mu ñëwee ci jumaa ji gis ne dafa gën a jublu xibla ci Afrique soowu jant wala ci àddina bi dafa yéemu ci ko natt ba laaj sëñ bu so ne da koo bëgg a gis ñu yóbbu ko Gédé mu gis ko mu ne ko gis naa ne ku la jàppale jox la ay matériel da nga mën a da doon jàmbaar wow oh. sëñ Mbàkke taral ko teeru ko bi mu demee mu dajale njaboot gi ne leen su fi ñëwaatee su ma fekkee xam naa ni may def mais su fekkee ne fekkuma fi lu mu leen jox na ko téye te bu leen bàyyi seen buum yi ak seen fàlla yi ngeen natte ba mu naw leen loolu nag boo ko dee xool lépp day dellu ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ci boppam moo xam pexey tubaab yi xam li ko diine jaral tax mu am ñoo xam ne da a sant ñuy def lee moom mais mu sant si Mbàkke Buso ne ko waxtu yi ñuy jullee ak xibla bu leen ko jéggaane ci tubaab yi xamal jàng leen ko ba xamal ko seen bopp ah, xam nga loolu nag tey fi fii ci Côte d'Ivoire ku jàng ilmu nujum dëgg-dëgg ci xam-xamu suñu mbàkk bisu boobu mën naa ñëw Afrique yi su dama koy wax rek bi ñu demee Bénin def ki gis heure yi ñu tolloo ak euh, ay heure Sénégal ba noppi wuute waxtu yu julli loola am na boroom xam-xam yoo xam ne mën nañ koo natte noo xam ne danañ xam lu tax xam marax ji fadduk safax gi lu tax muy yeexe nii xam fajar gi lu tax muy def nii loolu lépp xam-xam la xam-xam la loolu nag fi ne yéem na àddina bi ci ci Touba yéem na borom xam-xam yi nga xam ne ñoo yëngu ci loolu ba fi mu ne dëgmal nañ loola fi la àddina bi jëm moo tax wax dëgg naw nañ fii ni ngeen ji jéego bi ngeen yëkkati ngir euh, ngir xam am naa nag moom wàllu diine ak xam-xam si Touba ci boppam lakin unaadi kullal bilaadi maanaam sëñ bi njariñam daf ko indi ngir jullit yépp ku farlu rek jariñu ci waaw dëkk tuub dëkk ci biir Touba te farluwoo ci sëñ bi ngir jariñu ci doo ci jariñu loolu tamit doom mooy walaabal nag ci fépp rek même fii bu fekkee ne jullit yi fi nekk ñoo bëgg a jariñu ci njàngaleem sëriñ bi ñëw di eeseere wu ñooñu dañ jariñu waaw loolu moom mooy mooy moo walaabal fépp am na ñu dëkk Touba ñoo xam ne mën naa am am ñu gën a sori di gën a jariñu ci sëriñ bi sëñ bi ñëwut ngir Touba ñëwut ngir mouridisme rek dafa ñëw ngir lislaam waaw lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alqarra wa inni ahmad loolu mooy li ñun ñëpp nag ay jumtuwaay yi sëriñ bi lañ ci muy jaarale ci ñun lislaam ñu di ko yaatal kenn ku nekk am nga responsabilité ci loolu ba nga ba nga sukkee jéblu ay jihaadkat ngeen da ngeen fay ñëw ngir daan doole waaye ay jihaadkat lañ ngir yaatal lislaam ci fii loolu laa ci bëggoon a dolli wax dëgg yàlla di rafetlu jataay bi baax ak kàddu yi ak am njariñ goo xam ne wax yi am na ko njariñ kon xam naa dañuy jébbal kàddu gi alaaji ma kumba mu tëj hmm. waaw waaw effectivement démb bi ñu demee fale ci jumaa jële yi ko bon euh, gis nañ fa exemple exemple boo xam ne wax dëgg mën nañ cee teg loxo ndax su fekkee ne doomi réew mi fii doon koo xam ne déglu nañ bi muy wax Euh, mu doon koo xam ne mi ngi gëstu ci diine te jàmbaare na ci ñu fal ko imam mu doon ab ivoirien boo xam ne taalibe bi Sëriñ Tuubaa la bokk ne jàng na ñu dem ca jàkka ji jullee fa ñu gis nañu fay julli ñépp ay ivoirien lañ di ay jullit Sëriñ Tuubaa am fa loolu loolu résultat bu wóor la boo xam ne ñun tamit dañ koy jël parce que fu ne la dem ci àddina bi loolu dafa doon lu am solo loxo de lu ñuy jël la ñu nit ngir wane ko ndax suñ demee yi bëggoon nañ benn italien doon jullit doon murit jàng xam njàngaleem sëñ bi ba doon imaam loolu mooy dëgg-dëgg liggéey bi sëñ bi ñun gëm nañ sëñ Tuubaa ba noppi te kenn mënut a tax ñu weddi ko te duñ ko weddi ba mukk dañoo fexe nag dañoo war a fexe kon ba loola dem ci ñeneen ñoo xam ne xamuñ kat mooy sëñ ñun murid yi kat dañoo féex dañoo jàpp sëñ sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ko te am na barab yu jege yooyu dem yoo xam ne duñ xam sëñ bi xamuñ sëriñ bi loola nag ab liggéey la ab liggéey la te Sëriñ Tuubaa lim am kenn da ko amul lim am ci ñu mën a wane kenn amu ko genn xasidaam gi gën a tuuti kun kaati man rek kun man nga xam ne day ñaax nit ki ci nan lay def ba am xam-xam ah, loolu war ngeen koo war ngeen koo jël mu jëw ci seen école dama ne loolu amul benn ministère bu yëngu ci wàllu éducation te buñ la ko joxoon doo ko jël jariñoo ko xasida gu gàtt goo xam ne élève bi lay wax ni mu jaar ba am xam-xam rawatina nahjul xadaa ilaaj nga xam ne amul benn gouvernement bu bëgg a jaarale réewam yoon te boo ci sukkandikoo ci wàllu yar ak ay teggin ak nit nit war a doxe sëñ sëñ bi li yor ci ay njariñ dafa bëri te nag ñun ñoo ko war a wane ñoo ko war a jariñoo ñoo ko war a ñoo war a tax nit ñi jariñoo ni uxaatibu nasara turra fi ardihim bu koy wax ak yépp taalibe yi tasaaroo ci réew mi lay tax dinaa fekk nasaraan ci seen réew mu wax ak ñoom déedéet suñ comportement yii ñu mel la ñuy wane ba fexee jëmbat loolu kon wax dëgg ñun ñëw gi ñëw fii en tant koo xam ne acteur lañ ci mbir mi te nekk fañ nekk nga xam ne ñun dañuy fexe di créer loo xam ne taalibe yi dañ koy gis di ko roy muy Moukhaddamatoul ma jumaa ja dañuy fexe ba fuñ toll ñuy sos loo xam ne day aju ci njàngaleem sëriñ bi ngir kër Sëriñ Tuubaa yi ci àddina bi man koo roy kon suñ ñëwee fii gis fii résultat yu mel nii suñu xol da ci sedd lool lool lool lool tey ñaan ñu gën koo jëme kanam man dama koy wax toujours gis nga ñiy wutu sëñ Touba ñooy boroom jamono sëñ Muntaxa fi ne moo fi nekkal sëriñ Touba bi mu toogee daf wax ne liggéey yi yi ma fi fekk yépp danaa ko àggale waaye nag sama sama làcc bi ma bëgg a bay nag dëgg dëgg dëgg mooy xam-xam kon am na fu ko sëñ Tuubaa mu jëm te borom jamono nag fu mu wax xamal ne kon bëgg na ñu orienté liggéey bi mu jëm foofu loolu nag jëwrin yi am dégg-dégg ñoo mën a xam loolu ala kulli alim suñu àllarba ji ñuy yët sëñ Tuubaa dërëm bu ci bu ci toj moom loolu moom moom xas nañ ko far fas ak suñu lafuseet parce que xam nañ ne moo yor hurriya gi gi gi a liberté bi yoonu murit am addi ji ñu yëpp sëñ Tuubaa moo moo ko may mooy tax luñ bëgg def defal ko suñu bopp teg buñ ko jëgaane fenn léegi nag li nga xam ne mën na cee dolliku te du yàq ci li fi nekk dara loolu moom ci lañ war a xool ngir dox jëm ci te loolu rek mooy mooy mooy li kon fanweeri at wala ñeen fukki at wala juróom benn fukki at ñun ñu ngi ci dajaloo jàng xasida màggal togg séddale loolu amatul luñ ciy prouver xas nañ ko am ba noppi li ci des mooy yóbbu sëriñ bi fu gën a kawe fii ñu nekk loolu nag ak jàngat lay laaj ak ak taxaw seetlu te loolu nag suñu xel waru cee nelaw ñu jàpp ne fii rek lañ war a yem ah daal man mooy mooy li nga xam ne dañ koy gis di ko jàngat toujours te gis nañ fii ne dox nañ ci jéego yi soppi loolu ngir jëm ngir jëm ci kanam yàlla na ko yàlla gën a jëme kanam te gën leen a dëgëral dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi moom ay cant lay doon. ñi nga xam ne ñooy suñuy gan bu ñu fiy gan sax ndax. toolu Sëñ Tuubaa bi moom àdduna bi lépp da koo daj. kon foofu dem rekk loo fa fekk di liggéey nga dib taalibe Sëriñ Tuubaa amoo ci frontière kon loolu tamit yéen ngeen wone ci seeni taxawaay ak seeni wax ak seeni jëf fii wuutale woon ko fee ngeen jóge ca Touba moo tax dégg nañ seeni kàddu ñu mu neex ñu lool mu def ak soññ ci ñun ngeen tamit nga ñuy gën a orienté ci fañ war a jëm ak nañ ca war a demee loolu ma rafetlu naa ko bu baax a baax a baax ndax boo def taalibe Sëriñ Tuubaa foo dem doo nekkoo fa gan fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk rek ñun fu ñu mën a nekk rek ñun ñëpp Sëriñ Tuubaa moo ñu boole jaboote tool bee yaatu nag ba xajuñ ci benn bara kon ñun ñi nga xam tamit ñun ñoom ñun ñu fekk si nañ gën a doole góor góor gi nag mooy nañ boole xol yi gën a bennoo gën a jàppoo muy mag ñi di ndaw ñi di góor ñi di jigéen ñi nañ yeesalaat pas-pas yi di diisoo di waxtaan sëñ Bala day wax naan ñett yi benn sa mbirum bopp yoonu kenn nekkul ci nu loo neex nga jëfle ci bi ko ñaareel bi nga séq da koy diisoo ña nga ko séqal di waxtaan bi ko ñetteel du su yoon nekkul nga maandu ci liggéey Sëñ Tuubaa bii utuluñ ci kenn frontière te it dafa am benn jéego boo xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke dañu ko dañu ko andil ñu war caa jëm muy liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñun ñëpp war nañ cee taxaw gën a boole sunu bopp ba li nga xam ne moom la waree mi bëgg naw ko ci murit yi loolee ñu jàppale leen ci ndax ñoom duñoo duñoo rafetlu bu baax a baax li murid yi def ndax lañ fa fekk muy tuubaa muy muy Masaalikal Jinaan université ba murid yu ñoo dajale seeni fonds ba taxawal ko te fii ñoom gis nañ ni ñu ba jigee dara dañuy dem ci réew arab yi di màjjal loolu nag dañ loolu war naa mën a dafa war a mën a dafa war a ñàkk dafa war a deñ fii ci Côte d'Ivoire ñu bëgg na mu di ñoom nii ñuy doxe ñoom waa Côte d'Ivoire ñu mën a doxe noonu kon loolu aw sas la woo xam ne dañu ko tobbil ñu war ko ànd ak waa réew mi waaye nag loolu ñun ñi nga xam ne dañu fee nekk nañu gën a yeesal pas-pas yi di diisoo di waxtaan te liggéey bi moom jërul kenn di ci gis sa bopp ndax lépp sëriñ bi la ku ci man dara na la wóor ne ndimbal sëriñ bi moo tax nga man ko ku ci xam dara na nga xam ne ndimbal sëriñ moo tax nga xam ko kon maa ngi ciy soñ sama bopp bu baax a baax a baax ko defee ñu gën a toogaat waxtaanaat di gën di diisoo ba waar wi nga xam ne moom la ci Muntaxa tegal sunu kanam dara lépp rafet dara bañ cee boole gan ñoo ñi ngeen di wax danañ bokk toog waxtaan ba xam matuwaay ñu ci war a jël yépp ak nu ñu leen di nu ñu leen di taxaw yooyu yëpp lépp dañ ci bokk waxtaan diisoo ci xam fan yi bu buñ sunu gan ñu demee ñu mën a bokk toog nag léegi gën di waxtaan su defee kenn ku ci nekk la nga xam ne ah gis nga ko bu xëy mu naqale ci liggéey bi wala mu umpale ci liggéey bi loolu la ñu defal la ko mu leer nañ kenn ku nekk xam liggéey bi fu mu toll ak fu jëm nga xam ne kii jëw sax bu jekkoon jekk daal di soxeet dem kenn du ne man kër li fi xaw ma ci daal loolu day gàllankoor ab liggéey fekkee liggéey yow doo nga yaa ko yor te ñu ngi ko sigal xamuñ ci dara boo jekkee jekkee rek dem ah léegi ña ngi fa bàyyi dañuy jaaxle parce que laaj mu ne ah man kër xaw ma ci dara xaw ma fu mu toll xaw ma jëm kon loolu nañ gën di waxtaan bu baax a baax a baax a baax ndax moom nañ jàpp ne li fi jaar lépp ab téeñ la yan bu rëy bi rëy bi nag mi ngi door a nekk sunu kanam kon jërë ngeen jëf ñi ngi sant ñi fi teew nag ñi fi yéewoon nañ teew ñëpp ah nag cant gu rëy rëy am solo sunu gan ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bi ñëwati ñoom tamit dagg waat nañu soññ waat nañu gën nañoo orienté jërë ngeen jëf yàlla na saa borom delluwaat ci jàmm Euh, mission bi nga xam ne suñu borom jox na leen ko ah eh, yaa ngi leen ci gën a am ndam ñu daan am fas fasub ma am maam jàppale leen ci bu soobee yàlla ngeen ñaan ci baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf tubaarkalla bismillahi arrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman innani hustu bil ihla ilmuyni min jamihil adawa kullil ayni إنني هزت بالإله المين من جميع الأداوى كل لهين سارف الهلمة لربي تعالى راجيا ساقيه بماء معين ماسكا بالكتاب ماسك درير بيد الخائن البصير المعين وهو عيدي ورماتي وكنوزي وبه أرتجن خياد الحروني من به راب مرودسا بن حنيد قالوا طائع الله أمرني وهو فاخري وعروتي وجليسي بأحاديث ذي المزايا المكيني أحمد الحامدين مدى غوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه صل وسلم مع للوى لليقين من صحاب تبتهل لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتموا عني نفيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل سفيني عجل الفات والتجد بفيوض مخجلات سكبا فيك بالدجون ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني رب رقيني رمشاني zakkilin no na xam la fa in wasini xallini rabbi xallini bil masaaya misla shinin min qablihmi min washini listajib daawati bihima faaxadanni wa bima faaqa rabbi kulla gununi habli alkashfa daahu min wasaayin وامح عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رزقا صف لي كالكلي بغير ريوني واعف عني وعني يا مل حقوقا للبرايا والتقدي عني ديوني والتجوني بأن أكون خديما للكتاب العديد في كل هيني هب لي اليوم أغزادي نيم القائم التاليا بغير الهالي لسبيس روالي همداه ووداث نادي الآمين المكيل صل دهبا عليه ربي وسلم والتدم لي بإهليك سكوني